wala nga xam ne boog boroomam ki moom suuf si moo bàyyi ne d'accord bàyyi naa nañ ci tabax jàkk bàyyi naa la wala jox ma nangam ma bàyyi la ko boobaa mu dagal ndax jaay jënd lay doon beneen bi mu ne mhm. mi moom ndax alal ju araam dagan nañu aj ca Makka ag mhm. lan ak lan mooy ak agul mu ne ndax aj googee mhm. wax ju am important la nag mu ne ah. ndax aj ga mhm. nangu nañ ko comme nañ nangoo aji ñel aj ca lu mhm. leew la ah. wala déet téere yi dañuy wax ne aj dafay farata ci nit ku nekk xam ngeen ne wax naa ne fiq moom jëfi saahir ji rek la àtte boo xamee alali jàmbur it nga aji ca yoon du la ne demal ajaati ajuroo waaye nag leer na la ne ameel nga xàq ki nga aje ci alalam sa aj gi suñu borom du ko nangu ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena ben deureum bu lewul bu nekké ci alali ki aj bu ne labbayka sun borom ne ko la labbayka wala saadayka kon ci sharia aji ken du ne ko aji woo defoo farata ji waye nak tasawuf mo ñuy xamal ne amna bakar du ken du nangu aj ga ba nopi togn na da fay laaj mu ne ndax dana dagal ci ak julit muy ñaanal ko xamne du julit mu keneen ki boobu laaj jeex na ko mu borom waaw ku dul jullit mën nga koo ñaanal mu tuub mën nga koo ñaanal wér-gu-yaram mën nga koo ñaanal wërsëg bu ca dul lor jullit ca wërsëg waaye nag sañ loo koo ñaanal mucc wala texe waaw déedéet man sañ nga koo ñaanal mu tuub nag waaye daganul nga ñu ndegam wa mu li alquran wa ma kaana istigfaaru ibrahima li abi ilaa maw'idatin wa'adahaa falamaa tabayyana lahu annahu aduwwun lillaahi tabarra'a minhu inna ibrahima ndegam nit moo sañu la ñaanal baayam bu faatu te nekkul ci diine sañu koo ñaanal ab yonent sax sañu ko kon kenn daganul keneen ñaanal suñu borom jéggal ko moom moo daganul wala mu dem àjjana yooyu daganul nga ñaanal ko ko mu ne lan mooy gis-gisu lislaam ci wuute gi nit ñi di wuute ci weeri koor yi ci réew yi waaw euh, weeru koor yi weer yi moom li ma waxoon rek mu ngi demee ni ki rek julli xam nga ne bërëb bu la féete fenku fa la julli di njëkk a jote weer wi feeñ yi tam xam nga ne weer yi moom du jóg ci asamaan si moom faw mu ngi fi léeg-léeg bu fekkente ne euh, jant bi jot na ko ba ba muy suux te te taqaliko wuñu du feeñ waaye bu ko jant bi rawee tuuti rek ba mu xaw a lëndëm bu ko jiitoo xam nga ne moom jant bi daf koo gën a gaaw dana wër dana ko ànd ak moom dem si ba jotaat ko weneen yoon maanaam daw fanweeri yoon wala ñeent kii daw ñaar fukk ak juróom-ñeent mu jotaat ko jotaat boobu nag bu fekkee ne jote na ko fu kawe jant bi dana ko jiitu ba so mu xaw a lëndëm weer wi balay suuf ñu gis ko fekkente nag daf ko jot jot boo xam ne fekk nañ ñoom ñaar ñi ngi jegee so ñu soandoo wala jant bi njëkk koo sooyee tuuti wala weer bi njëkk koo sooyee tuuti du feeñ chéri euh, anak li mu santaane mooy gis ci bët waaye yenn tegtal la nanguwul affaire euh, météorologique yooyu yëpp sharia wala kala yooyu yëpp sharia dàq na ko moom daal moom euh, réew yi ko gis rek war nañoo woor war nañoo wori war nañoo seen gàmmu seen tamxarit seen yëpp ñu ngi ci aju ku gisul nag gisuloo rek loolu moom mënul ñàkk gis euh, nit ñee ko def problème ndax nit ñaari dëkk dañ daan dend ñii gis weeru koor woor ñii bañ koo gis bañ a woor kenn du ko def problème waaye bi nga xam ne nag dugal nañ ci rajo bi ak télévision yi ñu naan sëriñ sàngam wax na naan diw sàngam bu ko defee féewale nit ñi lañ ci jublu tijaan yi jaar fii naan murid yi sëriñ si la ñuy wooral murid yi jaar fii naan tijaan yi gouvernement bi la ñuy wooral yooyu yëpp ay féewale la waaye di nga ñaari nit dama ne mën nañu bokk benn kër kii yoon woorloo ko kii yoon bañ koo woorloo ndax ñaari seede ñu maandu la ñu wax waaye ki ko gisal bopp moom sañu a bañ a woor léegi bu ngeen bokkee kër gi yow nga teg ci sa bët war nga woor moom mi nga xam ne gisul ñaar ñu ko gis moom sa yor yoon woor loowu ko kooku moom dañoo mel ne ñi jàng sax dañu mel ne jànguñu dara wala xamatuñu dara sax topp di coow rek di lëjal nit ñi waaye loolu moom du dara jërëjëf sëriñ bi kon am na beneen laaj bu am solo mhm. ci ñun ñëpp mhm. boo xam ne ñoom sax dañoo wax ne bëggoon nañ koo def muy temu conférence bi mhm. loolu mooy mu ne dañuy laaj xasaayid yi nga xam ne ñi ngi koy jàng mu ne ndax am na ay xasaayid yoo xam ne yi wareefu koo jàng ak lan mooy payub ñi nga xam ne ñooy jàng xasaayid yooyu muy wax mu ne am na ci xasaayid yoo xam ne dañ ne sëriñ bi Cheikh Ahmadou Bamba nafaana allahu bi barakaati yi mu ne mi ngi ko bindoon ci ama sahib naa bi karam mu ne ndax xasaayid yooyu dafa yitteel rek ca at mooma mu ko bindee wala dana doxit ci yeneen at yu dut at moomale loolu mooy laaju waa daayira bi nga xam ne moom lañ bëggoon it nga nee na nga teqantal leen ci ba xam ba xam am na ci xasaayit yoo xam ne jàng ko dana lore wala du lore waaw ci ay yan maqa yan maqaama la xasaayit yooyu am lu mel ne kulku Euh, xasaay di nag dafa am yu bari ci nekk ndax am na ci yoo xam ne sëñ bi bi mu ko bindee bëgguloon mu feeñ taalibe yee ko feeñal am na ci yoo xam ne am na naar bu ci doon laaj lim ko tontu wala taqfu maa laysa laka bihi xam ne yoon nekku ci xamuloo ca dara koo xam xamal ko ne ko xaside googu sax day bëgguma mu génn taalibe yee ko rek xasaayid yi ama naa bi karam boobu nga wax sëñ Tuubaa ci boppam dafa bind ne la mu bindoon bi mu demagul ci géej gi lépp dégg ngeen ko ay yoon waxtaan nañ ko ba tàyyi suñu borom nangu ko wax naa leen ñàkk a nangu ci ku demee ne sëñ Tuubaa ni muy demee yi nga xam ne nag moom la bind bi mu jógee ci géej gi ba ca ama shahid wax na ne ñoddi ak jañ la suñu borom nangu na ko ngërëmal yàllaa ci nekk yi nga xam ne moom la bindaat gannaaw gi ba bi fi jóge moom mooy lépp lépp la ci nit man wax na am na fu mu ñaane ne defal sama xasida yi mu féete kaw sëriñu tërbiya ak sëriñu tarqiya waaye nag am na lu xew am na ci xasaayit yoo xam ne ngir nga jëriñu sa dëgg te bañ caa dana am ay chart dana laaj laab ak teewlu ak ndigal am na ci xasaayit yoo xam ne ki koy jàng war na cee am njigal am na teggin yu mu laaj ndax sëñ Tuubaa ne na lépp lu nit dem te ànd na ci teggin du ca jëriñu te du ca jële texe ñu ngi gis nañ ko ci bopp naxetu qadaa il haaj gannaaw nag dafa ci am xasaayit yoo xam ne màgg na màgg goo xam ne laaj na teggin yu wóor ak xam na nga koy defee bind na xasaayit yi nga xasaayit yi nga xam ne moom tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak i salaatu ala nabi ngoo moom ngir ñëpp ku nekk la murit bu nekk ak nit nit ku nit ku baax ku nekk jullit bu nekk am na ci xasaayit yoo xam ne am na wet gu mu gu muy gu njëriñam gën a gaawe dañ koy faral di wax xasaayit yi nga xam ne salaatu ala nabi la àndal day tërbiyee di tarqiya xasaayit ya nag yoo ci xam ne yii dafa mel nekk jëzbul qulub day xëcc xolu nit ki jëmee ci yàlla ak yonent bi ak bi jërëjëf d'accord ñi nga ci xam ne lu mel ni mu waay bu la day xacc xolu nit di ko jëmee ci yàlla ak di ko bëggloo yàlla ak yonente beeg sëñ bi yu ci mel ne waxaani xafisun qaahirun boobu musluwaay la bu ci mel ne rahman rahim boobu boo amee aajo ju itteel di ko faral di jàng suñu borom dafa bari daal xasida bu nekk waaye yépp am njëriñ bu ci nekk yim bind gannaaw bi karam yépp ñoddi ak jeñ lépp la ci di talib bi man ku ci mel nak fulk ak ak jalibatul maraqib mom amna secret yu diis yoo xam ne kii bu koy jàng bu ci amee mënee am ndigal moo gën te di ko jàng ko laab ak yéene ak jox ko teggin yi ci war bañ ko ëppal lool lool lool lool lool tax tru yàlla la turu yàlla wu mag la bismillahi rahman te turu yàlla lamu bari na ñu muy lor ñi muy lor ëpp ñi muy jëriñ xam ngeen tur yàlla day xacc xolu nit ki di leral nit ki bu rooxam sété ba leer lepp lu mu romb mu melni ne rek sa suwar sa sura manam sa image daf reflété iblis day dal di wat naaw day dal di naaw di wër bu naawé di wër dana duggal ay jax-jaxal ci nit ki dana dem ba sikki sakka ci yalla tur yàlla dana tax nit génn ci lislaam sax dégg ngeen mbiru abu mahsir falaki ak ni ñu koy waxe moo tax si kër tur yàlla ñu di ci laaj ay chart ki la ko jox na la ko war a jox fam la yemale yem fa lim bi mu la jox yem ca bu ko booleeg leneen boo bëggee àgg ci yàlla fekkee nag nit koo xam ne tuyaaba la bëgg rek moom day wut tuyaaba al isnul am moom bëpp tur yàlla digal nañ ko ku nekk القرآن من قوة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبي ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ذكر اك فكر نيب لا نكو ديغال بو فكيني نك دا ngay سيكر رك ngir بغ تويابا اك ngir سوري الشيطان شارت يي ييب من نسي فواي نك نغا اندك تيغين تا نغا فرال دي اندك نياب bari gi lool ba mu ëppit dana mën na lor am na ñu muy mën a lor ak ñu mu dul lor xëy waaye bu bu nu génnee ci loolu xasaayit yi moom yépp a am njariñ yépp a baax yépp ay faj lépp murit bu koy jàng na teewlu rek ànd ak yar ak teggin du ko jàng bu baax jàng ci kaw ak jàng ci suuf am na wuute boo xam ne am na lu ci sëñ bi wax ci masaalikul jinaan waaye tur yàlla boo ko dee sikkar te bëgg mu dugg la dëgg nasabaat gën a jëmee kaw moo gën wala maa yi nee ñu ki nga xam ne dana mucc ci njistal ba bu dee sikkar ca kaw du ci njistal sikkar ca kaw moo gën ndax keneen dégg ko roy ko mu am tuyaabaam ak tuyaabay kooka bu fekkee ne wóoluwul ne mën na mucc ci njistal mu sikkar ci suuf loolu mooy seen wuute waaye wuute wuñ ne ki nga xam ne moom du njistal moom mu sikar ci kaw moo gën ñeneen roy ko ba noppi ak cëram yi koy dégg yépp itam day am wa yaxudul kullu min al xawaasi xistan lahu min zikri rabbi naas ni ko sëñ Tuubaa waxee dafa wax ne julusu abdin fi makaanin taahiri mustaqbal al qiblati za tarabbu'i mu ne teggee ni turu yàlla mooy na jaam bi toog ci bërëb bu sell bu laab mu ferankalaayu wala mu toogee ni kuy julli di toogee jublu penku jublu penku feranklaayu wala mu def ni kiy julli aw mu tawarrikan kaman faa mu def tawarruk mooy ni nga xam ne kuy julli noonu lay tooge buy taayam wàllam woo xam ne daf caa war a sonn ngir am ko te nit ci àdduna du am lenn loo xam ne coono jiituwu ko te li gën ci àdduna wuute sa bànneex moo koy maye jullit bi day xam xel ne ànd ak bànneexam moo koy xañ lépp lu mu ñàkk te xeex ak bakkanam moo koy may lépp lu mu am mu xam ne wàññi boo gis ci benn lay tàmbalee nit ki mënula tëb gën ñëpp wala mu tëb àgg fu kenn àggul waaye day tàmbalee ci lu tuuti li mu mën te du ko bàyyi ab diir li ko jafe woon dana ko yomb doomu aadama suñu borom bind na ko bind boo xam ne li ñuy tudde ak tàggatu wet gu mu jublu rek mën na caa tàggat boppam ba àgg ci foo xam ne dañuy defe ne dug neen te fekk góorgóorlu rekk la yoon wi murid bi war a jaar nag sëñ bi xàll ne ko lépp lu mu fi war a xamle xamle na ko ci bind ci wax ak ci jëfam soog fiy jóge lu ci manqué ci nun ñii la ci taalibe yi la waaye du ci moom bi nu waxee nag démb ci mbiri àdduna li fi nekk liñ fi fekk li nuy teg suñuy bët di ko gis di ko làmb di ko daj wala mu di ñu xeeñ wala mu di ko yëpp lépp ci la sharia aju te lépp daf ko aj ci góor góorlu doomu aadama àdduna ji bala nga koo am dëgg danga nga wuuteeg sa bakkan muñ coono góor góorlu rawatina àllaaxira kon nag doy na leen rekk misaal sëñ Mourtada mii sëñ Tuubaa ko jur mu xam li war a xam lépp mën a toog këram di jaamu yàlla defu ko yërëm leen di dugg ci avion yi di dem ci réew mu nekk ngir di leen xettali woo leen ngeen daje ci yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa di beesal seeni xol ngeen di ko gis muy toggoo coono yu mag ngir yàlla ak yonent bi ak yéen kon wan na leen yoon wi yeneen wu yoon yeneen yoonu waniin démb laaj yi am na ci laaj boo xam ne ndax léeg-léeg danaa dem ba xuus ci wax ba fàtte woon sax lu doonoon laaj bi am na ko fi laajoon diggante alfarq bayna al ubudiyatu maanaam ilmu rubu ilmul ubudiyati waa ilmu rububiya benn xaaj bi laa tontu woon fàtte bi ci des fàtte saa jëm bi may génn ci saal bi la ci sama xel soog a dem misaaloon nañu ilmul ubudiyati ci ni bi war a def ba boromam di ko xeeñ mu wéy ca bay daj boromam wéy ca bay gis boromam ci bëti xolam xam nga ne suñu borom moom bët yi du ko gis ndax alquran nee na laa tudriku labsaar wa huwa yudriku labsaar wa huwa latiful xabir waaye nag nit dana ko gis ci bëti xol gis boo xam ne day moo raw gisu bët ci ilmul ubudiyati boobu nga xam ne ci la nit ki jaar di wéy di wéy ba àgg foofu ilmu rububiyati di beneen xam-xam bu sës ak moom te am tuuti lu ñu woote ilmul ubudiyati tàmbalikaay la ilmu rububiyati mooy àggukaay bu la neexee nga ne ilmul ubudiyati mooy baatinu sharia baatinu xaqiqa mooy ilmul rububiya bu la neexee nga ne xam-xamu yont yàlla Muusa mooy ilmul rububiyati xam ilmul ubudiyati mooy xam-xamu sayiduna xadr xam ngeen ne sayiduna xadr suñu borom joxoon na ko xam-xam boo xam ne jot joxu ko woon boobu Muusa alayhi salaatu wasalaam ba tax Muusa dox xam la muy defari xam kii mën a jëriñ xam kii mën a lor ku mu gis xam sa démb xam sa tey xam sa ëllëg xam-xam boobu xadir xamoon te Moussa xamu ko Moussa dafa xam beneen xam-xam bu gën boobu moo di xadir xam-xamu zahir xam-xamu addina la xam ci baatin Moussa <coughs> xam-xam-xamu sunu borom bu ilmu ilmu rububiyati ak ilmul ubudiyati ñu wutee ilmu rububiyati mooy xam suñu boroom fi asmaihi wa sifaatihi xam secret yi turi suñu boroom yi xam secret melo yi mu meloo xam secret yi jëf yi muy jëf ci jaam ñi loolu mooy ilmu rububiyati ilmu ubudiyati ci ngay jaar ba àgg ba jeexal ko soog a dugg ci ilmu rububiyati ndax سيدنا خضر ولي لون يونت على موسى دي يونت بو ولي خامي لو يونت خمولي يونت بيكو غنا خم لا غنا جاري موم موي خم بروم كي خم بيندي في اك خم سيني سيكري اك خم سونو بروم خم سيكري تروم اك نالوم اك جيفام مو فيتاكو اوب درجه علم الربوبيه موي لولو نه ماني وان كون بولا نيهي غا ميساليكو موسى اك خضر بولا نيهي غا موسى ليكو الشريعه اك حقيقه bari na ay misaal lool asmaullah turi suñu borom yi tur wu ci nekk dafa am secret boo xam ne am na ci jaam yi jaam boo xam ne ci loola lay jëfanteeg ci ci tur secret tur yooyu lay jëfanteeg moom li nga xam ne dafa am ci jaam yi ku mën a tudd abdourahman fa yàlla kii tudd abdourahim fa yàlla kii tudd abdul aziz fa yàlla kii tudd abdul hamid fa yàlla kii tudd abdoul razaq ki tudd Abdul Jabbar jaam boo ci xam ne bi sakare ba mu la binde dafa aju ciw tur tur woowa jikkoom ngay amee aw meloom ngay amee nit ki nga xam ne dañ koo bind ci seeboo mu tudd Mamadou seeboo mu tudd Moussa waaye Abdul Rasax la tudd dafa yàlla suñu borom daf koy wërsëgal ba di ko wërsëgal ci lu dul sabab ki nga xam ne dafa tudd Abdul Aziz suñu borom daf koy taal di ko jox kàttan donte jullit la donte yéefar la donte melaw mu man a meloo ak turu mu tudd fi nit ñi du ci dara tur wa mu boo ko xam ne secret bi ci tur yàlla yi fa la taxaw loola mooy li li li nga gis nit koo xam ne du sabablu yàlla di ko xéewal nga gis nit kuy sabablu di sonn di sonn di sonn te amam amam du toll noonu nga gis nit ku farlu farlu farlu ci jaamu yàlla nga gis nit ku ko gën a néew farlu ba noppi gën koo jege boromam gën ko koo xam nga xam ne kon coobareel suñu borom ak jëflante bi muy jëflanteeg jaam yi xam-xam boobu moo di ilmu rububiyati dafay xóot xóot goo xam ne gannaaw laaj yi bari na duñu mën a dugg ci détail yëpp mën koo misaal ba mu jeex wante kon ilmul ubudiyati mooy ni nga ko waxee woon démb ilmu rububiyati moo féete fii kooku mooy laaj bi nga xam ne moo desoon démb laaj bi jëkk tey mooy suñu borom mais ñu yonent euh, si si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu day faral di woo suñu borom ci xasaid yi yaa rabbana di ko faral di wax ba muy juróom amna ci mag ñi ñoo xamne neñu sepp fo fek serigne bi takrar fa ya rabana ya rabana ba ak julli yi juróom li ci jublu manam sekkarab julli gu ci nek ci nit nga xamne selal na agal na jihadu nafsi di tewlu tewlu ka ca war waxtu wu ci nek ak na muy jeexitale ci xolam ak la muy def ci mom loola le sëñ touba def ci ya rabana bu ci nek ci juróom yaa rabbana yi mu ànd ak juróomi julli yi nga xam ne benn bu ci nekk dafa ci ñaan suñu borom defal ko secret boo xam ne nit ki mënu koo am lu ci julli tisbaar bii mënu koo amee lu dul ci julli takkusaan bii mënu koo amee ndax xam ngeen ne nit ki nga xam ne dafa xóot ci tafakkur ak tazakkur maanaam sikkartu yàlla ak toog di fàttaliku tëraayu bàmmeel ak boroomam ak li ci kanamam bu kabare di julli ndax tam gi mu tam xalaat ci yoyu bu kabare di julli xelam do fu a dem ci aduna mukk ndax tam gi mu tam wéet di xalaat sun borom di xalaat bammel di xalaat sukurat. waxtu kabare do fu dem ci daray aduna tax tam na ko tagat na ci bammin ko xelam day dem ci secret yoyu bu ko defé léeg-léeg dana dem ba secret yoyu muy xam muy muy xelam daf ci tek bëtam diko gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam julli takusan ci madinatul munawwara kabarna jannok aljana moo tax mu ne uridat alayya al jannatu fi ardi fi ardi haadal xaait dem na ba jéggi benn jéego tàllal loxoom bëgg a watt ca meññet ma nee na benn doom rek bu ma ko ci wattoon waa Madina gépp daañu ci man di doyal ba jot kon xam ngeen ne lépp lu suñu borom sant jaam ñi ci jaamu yàlla am na sekara bu ca nekk boo xam ne ñi nga xam ne ñoo àgg ci al maarifatu billahi te mooy ilmu rububiyati boobu suñu borom dafa leen koy wan di leen ko wuññil te nag nëbbu ko kenn xañu ko kenn nit kee koy xañ boppam moo koy may boppam ci góorgóorloom ni ma waxoon léegi ci tàmbali bi ne bari na yoo xam ne nit a koy xañ boppam ak yoo xam ne nit a koy may boppam nit ki wuuteeg bakkanam ak góorgóorlu moo koy may gannaaw yàlla lu am ñaari nit ñi bu ñu bokkee sëriñ bokk fu ñu juddoo maase bokk lépp kii gën koo góor daal koy gën ndax wa kaana al afdal mutafadilu kii gën a kii fexee gën di jéem a gën ay moroom moo leen di gën ba fàww te gën aw yoon la am moo di tàmbalee ci li nga mën nga xam ne lii mën nga ko di ko yokk tuuti tuuti noo ci gën a yàgg gën ko mu gën a woyof fi yow nga di ko yokk ba ba ngay àgg ci dëgg dëgg baax waaye mënuloo tëb tëb ni nga xamee ne mënuloo tëb tëb jéggi benn jéego àgg ca dëkk bu sori naka noonu da ngay dox ndànk di jéggi ay jéego noonu ngay deme ci yàlla noonu ngay baax noonu ngay tàggoog seytaane noonu ngay muccee noonu ngay amee it may yàlla noonu nga koy xamee. jërëjëf naa ci dagaat beneen laaj bi mu ne dégg nañu ñu ne nit yàlla yi ñu ngi ñëw ci àddina ñaari yoon ñetti yoon. Mm-hmm. mu ne dégg na ñuy wax ne maa ngi ci wolof mm-hmm. ñoo ngi seede naa ne dégg naa ñuy wax ne am na ku ñëw àdduna ay yoon ak si wut mm-hmm. ci doom. ci nit mhm. loolu lu ñuy war a déglu lool la ndax dafa am lu dend ak moom te du dëgg am lu niroog moom te du dëgg te am ay nit ñu sa li ñuy wax ci arab tanaasukul arwaax wala li ñu mën a tuddee ci tubaab la doctrine de la nga xam ne niroo naag xalaat bi yennati sunu mbokki séeréer yi di am gëm ne nit ki day juddu bu dee ruu gi day fekk keneen kuy judduwaat mu dugg ca ruu googee ni ko séeréer si gëmee ñoom dafa gën a lëkkoo jëmm ji ba nga xam ne nee ñu bu ñëwee nga sàkkal ko benn màndarga koo xam ne kii ay doom day faral di faatu mu am doom benn mu dagg ci baaraam bi tuuti wala mu gaañ ko sàkkal ko màndarga légat boo xam ne du du fe du raaf day feeñ bu judduwaatee day indi légat booba waaye dootu dee ñoom noonu lañ ko gëmee docteur métempsycose ci tanaasuxut arwaax mooy tanaasuxut arwaax moom ni mu demee dañu ne nit ki bu juddoo roo gi jaxasoog yaram wi yenu ko muy dund benn mu nekk ci yoonu jub wala mu nekk ci yoonu dëng ak nu mu mën a nekkee waxtu woo xam ne dund na ci àdduna ba am expérience xam lu bari mu dee roo gi beneen bakkan di juddu ruu gi dem dugg ca booba waaye jaar gi mu jaaroon ci àdduna dana xam ne yoo xam ne euh, ku njëkk ka ca la ko xamee woon bi mu duggee ci kii ànd ak xam-xam boobu nga xam ne kon ruu gi mën na ñëw nangam yoon te waxtu wu ñëwee gën a xam di gën a xam ba mu muy àgg nekk ci wàllu yi ba mu muy àgg ci nekk yonent ñoom dañoo gëm ne kon ruu gi day ñëw ci jëmm ji jëmm ji di jaamu muy gën a sell di gën a sell ba am sellaayu jullit dëgg bu gëm bu dellu siwaatee am sellaayu waliyu dellu siwaat am sellaayu yonent ba ba muy jeex mu dem nag ajjana bu ko defee ruu gi nag set set gu ko mën a may mu mën a xéewlu mën a bànneexu ci leere suñu borom mooy àjjana ruu yi nga xam ne dañuy dugg ci jëm jëmm ji sàggan ruu gi di gën a tilim di gën a lëndëm di gën a ñuul di gën a ñaaw waxtu woo xamee ne borom dee na ruu gi di dellu siwaat day fekk tàmm na ñaaw ñaaw yooyu ak bàkkaar yu bon yi ak topp bànneex bi day dem ci benen jëmm bu gën a yées di ko def ba mu àgg ci ruuxu bàyyi ba mu koy àgg ci ruuxu seytaane nekk seytaane doctrine métempsychose loolu la ñu xalaat nii nga xam ne nag noonu la awliya uy wax ñoom beneen niveau la beneen domaine la yeneen anam la bu seetee al futuhatul daan gis ne cheikh muhiddin ibn arabi wax na ni maa ngi wër benn bis ci kaaba gi benn waaye nekk sama gannaaw dëgg ci sama armal ma dabaatal ko geesu ko xool ko xam ne kii bokkul ci way dund ñi aji dee la woon ma ne ko dama ne yow nitu fan nga bala ma laa laaj nitu lan nga kañ nga jóge woon adduna mu ne man ñetti junni at ba ma jóge àdduna ak léegi mat ne ko ñu gis na roox yi dëgg mën nañuy dellusi ci àdduna geneenuk si xam ngeen ne am na roox yoo xam ne néew yi dañuy jaamu yàlla ci seen bàmmeel xam ngeen ne rooxu jullit wala mbindeef mu mu doon moom dana di boy ci suuf si di seeti ay waa këram di seet ay doomam di xam lu fa xew ndax miraas nañ ko ndax fay nañu ay borom yooyu waaye bu amee ñeen fukki guddi dootu mën a jóge ci bàmmeel bi kooku bu ngeen seetee silkul jawaahir da ngay gis ne si Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu bind na ko loolu moo tax ñenn nag ñi di ñaan ñaanu ñeent fukki guddi ndax jullit eh, aji dee ji bu dee ba am ñetti fan ñetteelu fan bi dafa am ñuy xoolee ñëw nit yàlla yi di ñëw ñëw ba ñi ñëwoon ba ñoom dégg nañ dana bari de ndax wax yi dafa gudd wax laaj boobu benn wat ñëw na nangam yoon ci àdduna waaye mosul agsi ci nit ku ñuul moom lan tàmbali woon mu lëkkoog yeneen i xalaat yoo xam ne lislaam nanguwu ko muy tanaasuxul arwaax moom lañ doon misaal ak pas-pas bi nga xam ne xaw ma ba tey am na si ñu ko jàpp wala déet mooy sunu mbokki séeréer yi ñu jàpp woon ne nit ki bu deexee day dellu siwaat ci bañ a àggat ci détails yi ni ma ko waxee woon defe naa ne enregistré nañ ko waaye xalaat bi nga xam ne nag moom la awliyaa yi di wax moo di ni ma waxe woon ne ruux yi li leen yàlla may jullit ak yéefar ak dellusi bi ñuy dellusiwaat ba ba ñuy sax nag ca ëttub bàmmeel ya dootuñu fa jóge ci ñeent fukki guddi yi ni mu nekk ci silkul jawaahir man nag awliyaa yi ñoom du noonu ñoom seenu ñëw du ñëw goo xam ne dañuy dundaat ci àdduna ak nit ñi ba dee jotati ñu dee déedéet ñoom seen ruux mooy ñëw ruux bu nit ki deewee day amee melow jëmm ja li gën a bari ci jamono bu dikkee jëmm ji lu ci gën a bari bu feeñoo nit nit ñi duñ ko xam du leen xam bu dee ku yàlla may mu mën a feeñoo ba nit ñi di ko gisit muy jaamu la muy jaamu dana ko def te mu um mbindeef yi cheikh muhiddin ibn arabi bi ma nettali woon léegi mu waajo ju dëggoon ci armalam bi ba muy aj du woon nitu kese ko def te mu um bindee fii Cheikh Mouhidine Ibn Arabi bi ma nekk li woon léegi mu waajo ju dëggoon ci armalam bi ba muy aj du woon nitu kese waliyu kaamil la woon boo xam ne ci aarifoona billaahi yi gën a kawe la bokk looloo ko may ndax mu ni ma waxee woon démb ne roo ci nit ki dana jaamu yàlla xam yàlla ba roo gi day maanaam roxaaniyaam day nopp jismaaniyaam ba mel ne jismaaniyaam amatul ay jamono day mel ne nekkatul ruuxaani ba rek mo fa nek mo waral mu meuna gis malaika yi di gis jinne yi di gis liñu bind ci jëhi nit ki aji texe la wala aji texe di seen ruhani xam ngeen ne ruh mom yonente ci bisul alayhi salam mayu ñu ko won ndigalal mu misal ko wala mu waxtan ci bi nga xamee ne laaj nañ ko ko alquran daf ne ko wa yasalunaka ani ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al ilm illa qalilan ñetti laaj la waa Màkka demoon ne yahudi yi ñi nga xam ne jotoon ngeen ay téere yu jógee asamaan Moussa indi leen ko am ngeen xam-xam yoo xam ne mën ngeen noo tànnal ay laaj yoo xam ne ku dul yonent du ko mën a tontu ba ñu demee ñu leen bu ngeen demee bu ngeen ko laajee ñett yi bu ko tontoo yonent la na ngeen ko njëkk a laaj xale yi nga xam ne dañoo génnoon seenum réew réer lu ëpp ñetti téeméeri at dellu siwaat ana ñooñu a laaj leen ko roo lu mu doon ak luy nature luy tabi am ak fu muy nekk ci nit laaj ko ki nga xam ne dafa dàmbe woon penku ak sowwu ci ay mbiram ci ak noteelam suñu borom may ko lu mayul woon kenn suñu ko jiitu ci wetu noteel bi ñu dikkee fekk yonent bi sallallahu alayhi ma wax leen ko te waxul insha allah suñu mboroom natt ko ca suba sa benn wax yu wàccul benn aay wàccul ngir tontul ko xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko masaan laaj wala mu dem ba gis mbir mu mësula gis xamul lu ca yàlla namm alxuraan ay wàcc ne ko defal nangam bu ko yahud yi daan jéem a kole di ko laaj lu kenn xamul alxuraan mooy wàcc aaya ji ne ko ñi ngi la laaj nangam tontu leen nangam ak nangam bu saxaaba yi masaan dem fu sori mbir xew ñu werante nan la ñuy def buñu dike buñu ñibisé bisa dana fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jot aaya jo xamné xamlé né xamlé na loolu lu ci war bi mu né nak bu suba dana leen tontu suba si sun borom baña a dara mu tok weer ak nangami fan mënu leena tontu ba wa makka di ñu waramtu ñu di wax di rétan alquran bane wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allah fadkur rabbaka ida nasita bul waxat si lenn ne bu subaa ko te néewaloo insha allah alquran nag noonu mu ko misaale wax na leen dul qarnayni ak fa mu jaaroon na mu def wax leen ashabul kahfi mooy xale yooyu am xasibta an ashabul kahfi wa raqi bi kaanu min atina ajaban ida wal fitiyat ila al kahfi fa qala rabbana atina min ladunka rahmatan ila axirihi ila axirihi kon roo mooy ñetteel bi alquran ne ko wa yasalunaka ani ruuxi quli ruuxu min amri rabbi ñu ngi lay laaj roo ñu leen roo mbirum sa la mbirum sama borom la ndax joxuñu leen ci xam-xam lu dul lu néew li ngeen am ci xam-xam mënu leen a may ngeen xam roo na mu demee dëgg-dëgg kon secret la boo xam ne suñ borom xamlewu ko moom ci boppam mën na koo xamal nit waaye santul kenn nga xamle ko bi nga xamee ne alimaamul euh, xasaali radiallahu anhu ci al masailul xasaaliya fi l ajubati l oxrawiya question yi ñu ko daan laaj yépp jëm yomal xiyaam bañ cee tuddee roo dafa ne roo de mayuñu woon yonante bi sallallahu alayhi wasallam ndigalal mu wax ko kon nag keneen amul ndigalal waxtaane ko da nga gis euh, tafasir yi téere yi nga xam ne dañuy saa alquran ruux buñ ci àggee naan jismun latifun yaxya bihi insaanu maanaam matière la bu woyof buy fe bu dul feeñ mooy dundal nit firiwuñu ruux ndax ruux ar ruuxul xayawaan yi dafa am mooy liy dundal lépp luy dund nit ak baahima ak ndogment ak lépp lu mu doon kooku moo ñoom moom la ñu firi waaye ruux bi tax ñuy wax nga xam ne doomu aadama ko jagoo ni ruu googu ñuy wax na muy mel ci jëmm ba dundal ko ruu googee noonu lay dundee dundee dundalee ruu gi noonu lay dundee ci ruu gi ba may ko loo xam ne ñi am ruu gee rek amuñu ko am na ko ko laajoon maam Cheikh mu ne ko alquran moom mu ne moo ko firi moom mu ne minam ri rabbi maanaam ndigalal suñu borom la mënuñu ko weesu foofu way salu nag ani ruux qul ruux min rabbi ma utitu min al ilmi illa qalilan may ñu leen ci xam-xam lu ngeen mën a xamee ruux kon li ñu leen may ci xam-xam lu tuuti la bu leen ko laaj yi ci laaj yi ci des yëpp tontu na ko waaye ruux moom tontu ko léegi kon ci misaal toujours noonu lay def damay wéy wéy wéy ba fàtte sax <laughs> laaj bi na mu demee woon ah, awliyaa yi noonu la ñuy dikkee waaye nit ñi duñ leen mën a gis ñii dañuy jaamu ci seen bàmmeel ñii di fekk ji yeneen di jaamu ñii di aji ñii defi lu nekk nu yem foofu ci laaj boobu bu ci tegu comme li mu waxoon léegi tont na ci tontooti ci tontooti ci am na ci benn boo xam ne ñëw na léegi muy waa ji bind tubaab di laaj ruu ak yaram loolu waxoon nañ ko démb rek ci biir conférence bi ñu waxoon na ko kon nañu jéggal dañ koy continuer bu dégloo bandu démb bi dana ko ci fekk. mën nañ ci wax ba jant sax waaye soxla wu ko wax nañ ci waxtaan nañ kon loolu tax kii mu ne dafay laaj sëriñ bi téeméeri téere ak fukk ak ñeent yi sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba wax ne ñi ngi ko séddale ci diggante yonent yi Cheikh sa aadama Ibrahim Idris Moussa Isa wa Daoud Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam yooyu téere lay laaj ak. leetar yi nga xam ne yónni woon nañ ko ci yeneen yónent yu dut yooyu isa kana samaanu aw bu fekkee itam seen jamono dafa nekkoon distance bu sore maanaam yeneen yonent yi nga xam ne téere wàccul ci ñoom yonent yooyu nga xam ne téere wàcc nañ ci ñoom dafa bokk ci li nga xam ne jullit bi war na ko gëm ngir ngëmam mat alkutubu samawiya ndax bu ñu la wanee fukk yi gëm ko mooy tax ngëm dëgër alimaanu jësmun bil ilahi wal kutub bi ñu waxee yàlla teg nañ ci téere yooyu la limaanu jësmun bil ilahi wal kutub war rusli ak yonant yi wala mlaaki ak malaayika yi nga gëm ne loolu lépp loo am la ma baasin arab nga gëm ne nit ñi daañu dekki bis wa qadarin nga gëm dogal bi dogal nag moom liñ ci ma war a mën a wax bari na lool nag waaye jamono du ko maye sirat ba ñuy jéggi ak i meloom liñ ci mën a wax bari na lool misaan balance yi yi nga xam ne ci lañuy peese jëfi jaam yi ak nan la mel ak na mu demee ak na fa jaam bay taxawe ak xaal ba muy nekke xawdu nabi mooy kawsara mbalka yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne woy texe ñi dañ cey naan ëllëg bu ñu jéggee siraat ba safara wi lottal leen ba ñu wañso torax sonn tawat bépp xeeti mettit nekk ci ñoom ñu naan ca daal dundaat ba mel ni ku mësula am naqar ci àddina wala xiif wala mar walla coono ajjanaak safara fukk yooyu kon kutub yooyu li tax sëñ Tuubaa indi ko ndax sëñ Tuubaa dafa wax ne warlul na taalibe yi bindal leen ci lislaam ci sharia loo xam ne li ñu war a xam lépp a nga ca taalibe yi waroon nañoo jàng téere yooyu sëñ Abdou Lahad atan larafaa la def waradi anhu traduire lu na juróom-ñaari téere yooyu yëpp ngir ñi ko jàngul ñi jàngul arab ñu ca jàng français ñu xam ko ñu ci desit jàng ko ndax dañ Tuubaa li war rek la ci def amul woon jotu dëkk bind rekk ndax dafa am yeneen xeeti jaamu yàlla yoo xam ne daf koy woo waaye li mënul ñàkk mu bindal ko nii kon euh, téere yooyu yeneen yonent yi nga xam ne jotuñu ay téere yonent yi dañ ci am al anbiya wal mursaluuna mursaluuna yi ñooy ñu yenn ci jaam ñi ñu war a woote war a joxe diine war a xamle téere yooyu nag bu njëkk tawxiid rek a ci nekk tawxiid ndax faral nañuy misaal euh, détails yi day bari waaye Euh, yonent yu bari yoo xam ne wa rusulan qad qasasnaa alaykum xam ne lam naqsusum alayka am na yonent yu bari yoo xam ne mësuñu dégg sax seen tur yonent bi suñu boroom euh, xamalu ko ko wax waxu ko ko am na ci grec yi yennat yi borom yi xam-xam yoo xam ne am na borom yi gis-gis yu ne gis nañ leen ci àjjana te nit ñi xamuñu woon sax ndax gëm nañu yàlla wala déet mën naa am boo demee mën nañoo nekk ay yonent wala ñuy ñu fekk woon jamono yi benn yonent te leen kon yonent yi mënunoo xam seen lim ak nañu toll ñi ci indi ay téere tam mooy adaduha xadun téeméer ak ñeent noonu mu ko waxee noonu la bokk ci tawxid boo jàngee tawxid da nga ko jàng ñi nga xam ne indi wu ñuy téere ndax gannaaw yonent yi téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni lañu ñooñu rekk jot ci téere ñi ci des jotuñu téere dañuy ñëw ngir beesal la ko indi woon téere sàngam te dem la mu jàngalewoon woon ca téere ba benn daañu fekk téere ba raaf ba amatul ci kaw foofu xam ngeen ne ci jamono yu njëkk yaa njëkk a njëkk daay dana tàkk xam ngeen ne booba pour ñu bind ci doj lañuy bind walla ñu bind ci xaritu garab amuñu leneen luñ bind léeg-léeg mbënn mi ñëw ndox mi ñëw dàq leen ñu daw fa bàyyi ko mu lakk wala daay tàkk duñ ko àttan ñu daw bàyyi ko fa mu lakk ba nga xam ne faaw yónni beneen yonant boo xam ne mooy jàngale ci nit ñi li yàlla bëgg ñu xam ko ak ni ñu koy jaamoo yonent yi nga xam ne dañoo ñëw fekk bu ñu joxoon téere la nangami téere nga xam ne tawhid rek ci nekk nit ki na muy jaamoo yàlla na muy xamee yàlla loola koo ko jàngale woon moom lay fàttaliwaat moom lay beesalaat dindi la ca bokkul fàttali lañ ca fàtte woon kooku bokkul ci ku ñu yónni ci bindeef yi waaye dafa ñëw ngir beesal nga xam ne kon ab yonent la waaye nekkul mursal koo xam ne dañ ko ne wooteel leneen lu dul lii keneen nit mën na suñu borom mën na ko ci xamal leneen lu dul lii ñu laaj ko Muhyiddin Ibn Arabi moom itam bi mu ko misaalee ba noppi dal ne lii la ba ci suñu borom xamal ci jamono bii nga ma ko laajee jëmbul beneen jamono keneen nit mën na ko mën nañ ko cee laaj mu yokk ci leneen mu xam leneen wax ko ci bu ngeen bu leen soobee mën na ñoo laf kon laaj yooyu yëpp ñu dugg rek ci boobu allah nuuru samaawaati wal ardi rek dana yàgg lool waaye boo ko tàmbalee te eggul dana ci bari ngeen du du leer seen bopp bu leen waxee ñu bàyyi baax dese ay minute ñu dellu si ci waaw mi ngi dépensé nag mi ngi mbir maa ngi daal teguwaat ci seen loxo laaj yi am na fi ku bind benn laaj di laaj moom it arab la bind laaj bi mu ngi laaj lan mooy teqalikoog li ñuy wax addiya muy li ñuy def ñun murit ak ak ji dox suñu diggante ak suñu njaboot loolu la laaj waaw maanaam daal dundal njaboot ak addiya xam ngeen ne ah laajee nañ ko démb de waaw kon nag ngeen jégal ñu moo ne laaj boobu laajoon nañ ko démb am na beneen laaj bu fi am solo te gàtt lool waaye nañ ci jublu ñun ñëpp danañu yitteel kii dafay laaj mu ne ndax yónnee asaka jëlee ko fii yónnee ko sénégal dagan na wala déet hmm. asaka ngir nga mën koo jéggil bërëb bi yóbbu ko ci beneen bërëb am na ay charte ngeen ko ci sax bu fekkente ne kii ku ko yeyoo la charte yi nga xam ne mooy tax a mën a lekk asaka daje na ci moom ba noppi mu loru mu lot ci nga jéggi ko jox keneen koo xam ne kii dafa yem moom ci daraja yi lot moom itam matal charte yi taaddi lañ ko tudde mooy jalgati njuumte la su ma taaddi bi tasadduqin xalat ni ko sëñ Tuubaa waxe am na bakkaar ndax tooñ nga def nga jalgati bu fekkente ne nag léegi fii nga nekk benn am nga sikki sàkk ndax mën nañoo lekk asaka wala déet nga amit sikki sàkk ndax charte yi matal nañ ko wala déet nga xam ku la wóor ne kii moom mën na euh, lekk asaka te néewu fi sori na fii nga nekk nag xamuloo fi ku la wóor ne mën na koo lekk nga yónnee ko kooka moom dara nekku ci asaka dina fekk ne rek bu mu la fegal lenn loo waroon a joxe muy farata ci yow nga féete la fa asaka ja kon yow yaa lekk asaka ji asaka liñ ci sartoon jàngeen ko ci aaya ji innama sadaqat lil fuqaraay wal masakini wal amilina alayha wal muwallafati qulubuhum wa fi raqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bini sabili alhamdulillah juróom-ñett ñooyu ñoo mën a rek asaka faqir ak miskin faqir mooy ki nga xam ne am na dara waaye amul lu ko doy miskin mooy ki nga xam ne amul daanaka lu mu reere waaye am na ñoo xam ne dañ koo intervertir walbati jox ki bi at jox kii bi at wala amilina aleha ndax bu fekkoonte ne gouvernement bi jullit la dañuy nommé ay fonctionnaires yoo xam ne ñooy wër bi jël asaka yi ñooñu liñ leen di fay ci asaka ji lañ koy jëlee mooy wala amilina aleha wal muallafati qulubuhum wala nit koo xam ne dafa jeng jëm ci lislaam nu xalaat ne dana tuub waaye bu xawaat a tumuranke am ay difficulté ca ay mbokkam wala ña koy dundal wala ñu muy digaaleel daañ ci yëkkati jox ko ngir dimbali ko ngir mu mën a tuub bu fi riqaa bi jaam boo xam ne dafa bëgg a jotu ci ba jaam bi am dafa bëgg a jotoo ak ki ko moom jox ko loo xam ne nee na ko boo ma ko joxee dal di libre wala nit koo xam ne ak gor la bor yi wër ko mënu koo fay ba mu jaax jaaxle wala aji tukki joo xam ne dafa jóge ci réew mu sori jëm ci réew mu sori jaar fi am na sax xëy na alal fa mu jëm waaye fii mu nekk amu fi dara lot na aajowoo na ko kooku daañu ko jox ci asaka yi juróom-ñett ñooñu ñoo war a lekk bu fekkente ne nag léegi ki ngay joxi ak ki ngay jéggi ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk bokk nga ci kenn ci ñooñu te kee gënu koo lott gën a lott bu biir amuloo it sikki sàkk ci ndax kii mën na lekk asaka wala déet waru la ko ko jéggale bu fekkee nag am nga sikki sàkk ci moom te kee sa xel dal ci amuloo keneen ko ko jox nga yónne mën nga ko yónnee waaw waaw kii mu ne moom mi ngi ab jullit la takkusaan def na ba tey waaw kii mu ne ab jullit la boobu mi ngi liggéey ci ay lu ñuy tuddee ay guitare guitare ay maanaam ay ay waaw usines yooyu dañuy jaay ay ndawal mm-hmm. ndawalu xar bëy ay nag ak yeneen mm-hmm. li ko ci ñor mooy li ñu tuddee mu xinsiir mooy mayaale mm-hmm. mu ne ndax laal googu muy laal yàpp di ko tuxale fii di ko jële fii di ko yóbbu fële loolu lay laaj ndax dagan na walla déet xinsiir lu xaram la araam ay dagari la lépp loo xam ne araam na wala sharia sib na ko ay degré la am yi ci gën a bari bu ñu amul lor bi ñuy lor nit araam na nga rey leen te amuloo ci soxla xen xinziir rek ci lañ ko dagganale ndax li muy yàppam di loo xam ne dafa amul dara ci barke amul dara ci roxaaniya amul dara ci nuuraaniya ab jullit war koo sori nga xam nit ki ko lekk dana lëndëmal xolam dana ko tàyyelloo jaamu yàlla dana ko bëgguloo lu koy lor dana ko tàyyelloo lu am njëriñ ci moom waaye buñ seetee xinziir ak sàngara sàngara moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam yow fatxi màkkata dafa rëbb sàngara rëbbaale fukk xinziir nag gisuñu fu mu rëbbee ñi ko jege ak ñi ànd ak ki koy jëfandikoo ak ki koy jënd xam nañ ni rek araam na jënd gi araam na njëgam araam na maanaam ñu may def xinziir nga ne jullit laa duma ko lekk dem jaay ko lekk njëgga araam na mu ngi mel ne lekk nga xinziir am maa jege xinziir wala nga laal ko lu ñu soppul la bu fekkee nag daruri la maanaam li tubaab di wax contrainte nit ki mën na ko ndax sàngara mi nga xam ne moom la ñu rëbboon jël la naa araam gi waaye dañ koo rëbb rëbbaale ci fukk ki koy jënd ki mu koy jëndal ki koy jaay ki koy yenu ki koy nal ba mu mat fukk ak ki fay jege ak ki koy naan ba mu mat fukk ñoom ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wasallam rëbb na keroog yow ma fatti màkkate xinziir waxuñu ne rëbb dañ ñoo ñoo waaye ci jullit bu fekkee ne mën na koo bañ a laal moo gën bu ko mënul a bañ laal par contrainte gis nañ ne sàngara moomu sax ci boppam am na fu séré a daganale jullit bi naan ko du pour ngir faju de waaye ci loo xam ne dee daf cee gaaw mooy mu lekk ba fot amul ndox mu mu tàggantee fotam googu sàngara rek nekk fi yoon may na ko mu góox wanaasu bu dañul mu góoxaat wanaasu ba li galandu ci putam dem médd lu xaram la waaye ci daruur yu bu nit ki demee ma nga xam ne bu ko lekkul dee dana ko lekk kon xinziir bu ñu àggoon foofu daañu ko lekk léegi nag nit ki àggul ci contrainte maanaam ci daruur yu àggul ci foo xam ne xinziir dana dagan ci moom wala sàngara day liggéey liggéey bi tam nag xëy na bu ko bàyyee dana ko jafewaat xamul dana ko amam déet duñ ko forcé mu lekk laxmul xinziir fekkee ne daf koy toxal di ko jëlee fii yóbbu fee moo gën a woyof lu ñu sib la waaye bu fekkee ne nit ki dafa amul pexe mën na ko waaye nag bu ko mënee bu amee benn possibilité bañ koo laal moo gën bu ko mënul nag waaye bu mu lekk bu mu lekk bu mu lekk njëg njëgu xinsiir bi bu mu ko lekk randal gi moo gën a woyof moom it dafay laaj ma hiya sifaat allati يتحقق بها المريد لكي يكون مريدا صادقا وما دورها في أهل الشيخ معنى أولاده صح سنك بابني صفات صادق المريد اختصار xam ngeen xam ngeen ko li jiitu mooy dëgg ci sopp sëriñ bi sopp sëriñ bi nga xam ne mooy wasilaam ila allahi sopp xam ngeen ne wax naan ba tàyyi ne mooy buum gi yeew taalibi bi ci sëriñ bi te ci sopp gi nga xam ne moom la taalibi di sopp sëriñ bi ci la sëriñ bi mën a dëgg ba faj aajoom waaye sopp gi nga xam ne sëriñ bee ko ko sopp moom mënu koo jëriñ dara dañu sëriñ Tuubaa daana wax ne seen sopp gi ngeen may sopp moo leen di jëriñ waaye sama sopp gi ma leen sopp mënu leen a jëriñ dara ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam borom daf ko ne la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha'u bu sopp gi dëggoo gëm ak wóolu ak ñàkk sikki sàkka ak ñàkk teggi ndigal gëm mooy bu am jënn jëmm ji la gën a doy ci moom bul sàkk jënn jëmm yoo xam ne moo la gën a doy bi وكن لا شك كموسي وذا بين يدي خافيه تنتفع na nga nekk ci sa kanamu sëriñ li nga xam ne néew bu ñu tëral ci kanamu ki koy sang nga xam ne lu mu def moo ko defloo lu mu bàyyi moo ko bàyyiloo daanaa misaal euh, sëriñ boobu woon ci gànnaar te am benn taalibi bu fa dem di tër bi yëwu léeg-léeg ñu ngi ñëw ci kanamam ba aajoom faju mu àgg dem moom mu def fi yàgg fi loolu bu benn bis waaw laaj sëriñ bi ne ko man de yàgg naa fi ñu bari dañuy ñëw fekk ma fi seen aajo faju ñu dem man nag ba léegi dara mu ne ko waa baax na benn bis jenn waaye dal di ñëw jébbalu mu dal di woo waa ji nga xam moo fi yàggoon ne ko demal duggal ma ca teen bee am na lu ca nekk nga indil ma ko waaye bu la kenn yoor ak baat na nga dem ak sa loxoy neen rek bu dawee dawa daw ba gis seen bi rek xool mu gudd mu taxaw mu wokk fii soog a ñëw ne ko demal duggal ma sa teen ba làmbal ma sa jaaro bu sa wat doon waaye lu yàgg yàgg bu duggee guum bu duggee ba bu duggee dara waa ji dawa fee rek agsi rek dal di daanu ci teen bi bi mu dara jotu ko bi mu ko génnee mu ne ko lii moo tax ñi nga xam ne dañ fiy ñëw fekk la fi seen aajo faju ñu dem te yow sa aajo tëye faju dañ laa gën a gëm kon wóolu bi nga wóolu ba nga xam ne wóolu nga ne sëñ bi bu juumoon sax njuumteem googu moo gën yow sa euh, ñàkk a juum nga nga def lii muy lu jub sëñ bi def lii muy loo xam ne yow ci bopp da nga koo teg lu dëng la lay dikkal ci lor ci sa dëgg gi moo gën a bari la lay dikkal ci maanaam dara du la dikkal ci lor ci njuumteel sëriñ ba ndax mën na mel ne dafa juum fekk juumul euh, sëriñ su njëkk si melo yu bari daanañ ko nattoo taalibe yi nga xam ne ñoo sës si ñoom euh, détails yi dafay ndax laaj yi day bari moo tax waaye sifa boobu daal mooy na wóolu ne na wóolu ne bu ko sëñ bi ne woon duggal ci safara wi bu dugg na ko sopp sopp koo xam ne moom la gën a sopp ci lépp na fekk na itam moom laaj ما أقيقة ما هي الأقيقة مجدد والمحافظ وهل شيخ مح... شيخ أحمد بامبا من دمنهم وما الفرق بينهم والأنبياء آه. مجدد مم جفنا نشنياري كونفرانس يا خمنا بيدي بوكو شيخ مروم المجدد دفع أي شرط يلنتنا مم لم ووتك مجدد رك وعي لم كيف كدول يلنتنا ak foo mën a àgg ci yàlla li ñu wute mooy yonent day ñëw sotti yonent kenn du ko jàngal kenn du ko yar kenn du ko won dara doy lu na walis mbindeef nit ñëpp malaaka lay gis malaaka lay waxal ak boromam bu juddu woon juddoo ci réew yéefar yi gën a mag kenn jàngal kenn xamalu ko dara it dana xam yàlla xam gu mat sëkk sëkk dana jub jub gu mat sëkk te li nga xam ne moom lay war a wax jaam ñi du ci juum mukk mukk mukk leneen meneen mbindeef mu dul yonent aajowoo nga ku la jàngal aajowoo nga tërbiya maanaam jihaadu nafsi ba ba ngay àgg aajowoo nga jéggi ay maqaam ba ba ngay àgg <coughs> wala yu nag mooy <coughs> bi mun arab yi wax na ko am na ñoo xam ne daañu dem ba àgg ci maqaamam yonent waaye duñ doon yonent ndax kenn yónniwu leen dañu ñëw gannaaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci maqaam ndax xam ngeen ne jëf ak maqaama duñu benn ndax maqaam mu ngi aju ci coobareel suñu borom ak ak tabeem bu ko neexee mu yëkkati la teg ci maqaamam saxaaba yi waaye jëf moom kenn mënu coo jot saxaaba yi ndax dañoo jëf ci jamono boo xam ne keneen fekkiwu ko ñoom rek a wante jamono booba wéy na mooy taxawal lislaam jaay seen deret jaay seen lépp ànd ak yonente bi salaatu nga xam ne gis ko rek maqaama la te gis ko rek te gëm ko ñu ànd ak moom jaay seen bakkan di xeex wacc seen àdduna wacc seen lépp wacc sax seen àllaaxira wut rek ngërëmal yàlla ba seetatuñu dana loolu keneen mënu koo am dañoo wax ne Cheikh Ahmadou Bamba bi wax ilay yaqaadullahu maalam yakuni wala yakunu abadan di wum ki ni dafa jaamu suñu borom ba suñu borom man ko maqaama yi nga xam ne mooy maqaama yi rijaalullahi yi mu gis ne bi mu ci gën a xemmem mooy maqaama ahlu badrin ñi xare woon badar bi mu ko ñaanee suñu borom waxtaane nañ ko ba tàyyi mu ne ko julli mënatu la koo may woor mënatu la koo may wesaare xam-xam mënatu la koo may sarxe mënatu la koo may aji mënatu koo may tërbiyewu mënatu la koo may lenn dong mooy ak natt boobu mu signé woon dem ci géej gi jaay naa jaayante naa moom ka jaayanteeg moom laj ak yi nga xam ne moom moo ko ci wesal boppam bàyyi ko muy yoo xam ne kenn mënu koo bàyyi ngir am mën a bokk ca ahlu badrin yonent kon yooyu yëpp moom aajowul aajowul benn fàggu moom liñ ko yónni si jaam ñi na ko matal rek bu fekkoon ne ñaari fan la woote ñu rey ko it yonent la rek yonent yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam ñetti at la woote ñetti at la woote fanweeri at ak ñett la dund ci aduna ñetti at la wote yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaar fukki at ak ñett wote nako waye ku nek xam ne ne jàngul fenn kenn jàngalu ko dara kenn xamalu ko dara ken yeru ko ken tërbiyewu ko jaarul fenn ndax yonent moom waxtu wu juddoo rek xam sun borom baraka taala lol mom kon moy wutep yaronte ak kurul yaronte mu jaddit yaangi ngi ci biir tàmbali waatal waxal dafa doon wax ne al mujaddid waaw wal muhaafis waaw muhaafis ndax Cheikh Ahmadou Bamba mhm. ci biir ñooñu la bokk mhm. ak lan mooy wuuteeg Cheikh Ahmadou Bamba ak ñooñu le mujaddid yi benn bokku ci ak sa morom ak lan mooy wuuteeg yonent yi mhm. ak wàllu yi waaw loolu moo wax naa ko mooy li ma wax léegi ne yonent wàllu yi dana aajowoo tërbiya dana aajowoo jàng dana aajowoo yëpp ngir mu àgg ci yàlla mën na nekk majzuub nag da fekk ne détails yi dafay bari buñ ci duggee du jeex mukk wàllu benn mu nekk ndax dañ ne ñeent lañu asaalikul mujarrad asaalikul majzuub al majzuubul mujarrad al majzuubul saalik mooy bi ci gën a féete kaw yëpp day détails yoo xam ne day bari jamono bi du ko mayee waaye ak wàllu yu mën a doon wuuteem ak yonent ni ma waxe woon rek la waxe léegi moom noonu la demee léegi mu des euh, mujaddid yi mujaddid ay charte la am jëmm joo xam ne matal na charte yépp ulama yi ñooy daje ba nangu ko bu ko yàlla defee doon na ko ndax nag nit ñi ñoom ñu xam ko wala ñàkk koo xam lu ci ne lu mën a am la ñeent juróom ñooñu nga xam ne kenn ku ci nekk ulama yi saxal nañ ne mu jaddali am na ci ñaar ñoo xam ne wala ñett ñoo xam ne ulama yi dajewuñ ci ñii la ñu kii ñii la kii la ñii la kii kon limaamu Shafii gannaaw Omar ibn Abdul Aziz alimaamul Xasaali ñett ñooñu lañ ci daje ñëpp daje ci ne mujaddid lañu mujaddid lan mooy ay shartam waaw ah ma àggale waaw ah. defe naa question bi noo ngi ci jeexagul defe naa waaw man daal defe naa kooku moom am na ay kaset bi ci ne am na ay kaset mujaddid ak muhaafis moom daanaka euh, dañuy teel suñu temps rek waaye ndax ñaari euh, conférence yoo xam ne bindee fii bu ko bu takk cercle bi foofu séddale ko buum gi bu fii jeexal na li bindee fii moom weesu na foo xam ne mbindeef àgg na fa ci xam wala ci dem wala ci yëg dara desitu lu lu xam ne lu yàlla dong moom la mbindeef amatu ko yoon lii lii moo représenté suñu borom فكان قاب قوسين مو نيك خوتو نياري خالاي مانام نياري ارك ني اوادنا ولا مو جيني جيجي لولو بو جيني جيجي لولو موي بو مو سيري نغ عز وجل با ادلي سين دي بنو الموهوب الحقاني فاوها الى عبده ما اوها بغير واسطه جبريل سن بروم كو فاي ييتيوال كو ييتيوال بو خامني جاري ول سي جبريل جبريل ني بوكو خامو كو نيا نعم، سوفو سن بروم تخنا كو نيتي فاتو خام خام benn xam-xam boo xam ne araam na mu xamal ko kenn diggante ak boromam rek la ak xam-xam boo xam ne war na ci moom mu xamal ko mbindeef yi mooy alquran ak lu mu indi ak lépp loo xam ne ci xadis xam le na ko ci sharia ak beneen façon xam boo xam ne bu gisee ku ko soob te mën koo yenu attan ko te mu neex ko mu xamal la ko xam-xam boobu ci la awliya yi rawantee moo tax Ali Nabi Talib ne am naa ci xam-xam loo xam ne Jibril amu ko Mikaayil amu ko Israil amu ko Israfil amu ko ndax ci xam-xam boobu la ko suñu borom taxe nee لقد أرسلت لساني في فمي فانفتحت لي ألف باب من العلم فهو حق المعبود لو وجئت لي وسادة جلست عليها لحكمت على أهل التوراة بتوريتهم ولا أهل الإنجيل بإنجيلهم ولا أهل هذا القرآن بقرآنهم طب الناس ما لم تسمع ديني ديني بنت خم خم أبوك تمن دون ما تقال من جلناي ما توكل بنا أعطي يوم توريت سين توريت من إنجيل سين إنجيل من فرقان ثلاث تكن عن خدمتي بفضل mooy istidaad boobu moo xoon ak disposition disposition yooyu moo xoon ak ñu ngi ko composé muy gën jaamati composition nga xam ne nit ki mën naa àgg ci boromam foo xam ne ka xelam xalaati ko waaye mën naa dellu ba yées maanaam animaux yi moo tax ñu delloo ko gannaaw ca gën jaa suufe yi ña suufe lu dul gaa ñu gëm sa jëf-jëf jiw kon ah, l'âme angélique et l'âme bachir bu ñu seetee c'est différence kenn ku ci nekk ci leeru yàlla lañ la bind ndax a nafsu tamutu ahlu sharia yëpp dagal d'accord nañ ci euh, immortel laal immortel daanu dem tuuti bu ñu àggee ci suñu wax ne xam na question buy laaj ndax sëñ Touba loolu euh, Moussa ka sëñ Moussa ka wax ci misaali ko ji naan naan li sëñ Touba wax ne bi Moussa labalee Firawna ak Noohin mbënd mën indi woon doomu aadama yi toog yëpp suñu borom far leen mu ne moo leen joxoon ay mbóotam bu nu dee waxtaane loolu am na question bu ko tudd bu nu dee waxtaane loolu daanu dem ci mbirum am basiri bu soobee yàlla daanu ci wax explication bu leer insha allahu rabbi sëriñ Fay mooy laaj ndax sëriñ Tuubaa moo bind ne ay taalibeem yépp dañuy dem àjjana bala ma koy expliquer dara danaa ko xamal ne taalibe bu mu nangu seen njëbbal day da ngay dem àjjana waaye lool sax nga mënu ca du ma di ko gun ci lu dul xam nañu ne àjjana mucc maanaam lu jafe la ndax iblis ñu doon waxtaane sànq Sëñ Tuubaa wax na ne bi muy misaal ne ثم السلامة من الغرور لأمر ربي أصعب الأمور لأنه يكون بالعلم كما يكون بالجهل بقول العلماء mucc lu jafe la waru lu yomb la dana dikke nit ci ci xam-xam bu bari dana dikke nit ci ci jaamu yàlla bu bari dana dikke nit ci ci cër bu ko yàlla cëral muy baatin mu war ko nga xam na ne ñi nga xam ne dañoo xam yàlla sañ-sañu yàlla bi ñu gis moo tax fu ñu toll rek ñu ci tiit ci abdou qadir jilani nee na suñu borom jox na ma ñeen fukki kóllëre yi wóolu ko yoo xam ne nee na du ma la def makru mukk maanaam du ma la fexeel maanaam du ma dugal alkande ci sa biir dund wala alaxira maanaam ku mucc nga waaye nag loolu lépp taxul sama xel dal ndax xam gëmu xam yàlla rek xam sañ-sañam ba ndax suñu borom bu ko sooboon mu ne la du ma def li ba noppi def ko te du tax waxam dañ sax loolu duggul seen bopp xam naa ne waaye sallallahu alayhi wa sallama keroog ci xare badara ba mu nekkee ci aris ba mook sidna abu bakrin tàlla na suñu boroom ay loxoom ne ko nang ma may ndimbal ba suñu boroom nangu xamal ko ne ko it na nangu na danaa la dimbale ci yéefar yi ndax booba néew ñu ñetti téeméer contre junni waaye teewul bi xeex bi daa doon tàmbali mu nekk sidna abu bakar ca mbaar ma tàllal ay loxoom yàlla di ñaan naan ko suñu boroom kuréel bii day bu ñu alkoo déefatu la jaamu ci kaw suuf yëkkati loxo yi ba làmbaay gi mu làmboo woon tegoon ci kaw mbagg yi wadd ci suuf si Abubakar for ko teg ko ci kaw mbagg yi ne ko baada munaashadatika rabbika fa inna laa qad qabila da'wataka noppalal sa bopp wàññil torox lu dee ñaan gi suñu borom nangu ne sa ñaan gi Sidna Abubakar xamul lu yonent bi xamul de ndëram Sidna Abubakar ko am as ci yonent bi waaye nag yonent bi dafa gis lu mu gisul gis xam sañ-sañ suñu borom bi nga xam ne lu ko soob def te tax waa xam dañ du tax mu wàññi ko dara loola tax xelam dalul ba am na ku ne abu yazid bustani nee na su ma xamoon benn jëmm ci njub ak tawxid mu ànd benn bis ba dugg ci jàkka benn so benn kenn rek dox suñu diggante mu dee bu ma agsee ci moom du tax ma mën a waat ne dee na ci ngëm ndax xam gi mu xam kattanu iblis ak sañ-sañ suñu borom ndax suñu borom yuuru ji fi layli nahaarahu kama yuuru ji fi naari laylan aslama day tàbbal guddi ci bëccëg di tàbbal bëccëg ci guddi day tàbbal ndund ci ndee di tàbbal ndee ci ndund kon loolu tax na ñooñu ñëpp la gën a jege yàlla rek moo la gën a amum tiit jibril ci boppam moo la dàq a jooy gën a tiit gën a ragal yàlla ndax safara bu ko misaaloon fii da nga naan loolu mun la am dootoo lekkati dootoo naanati te waxtu wu déggee kàddu suñu borom mu woo ko day mel ne lépp googu njombar boobu jaar ci naaj wu tàng yi ndax tiit ndax ragal suñu borom tabaraka wa taala kon na ku la gën a jege suñu borom moo la gën la koo xam moo la gën a teewlu sañ-sañam bi du naagu mukk ba suñu borom jox la assurance boo xam ne laa yaxtamilu sàkk kenn mën a dana xaraam ci yow nga sikki sàkk ca loolu bëgg a jëm jëlale naa ne jaam dana àgg ci boromam foofu bu jógee di dox ku tàggoog moom ku dajeeg moom suñu borom baal la say say bàkkaar jaam dana toll foofu ku bokk moom lekk suñu borom baal la say bàkkaar ñu wax Uwaysul Qarani fekk woon na jamono yonente bi sallallahu alayhi a bari ci waxi mu arrixoona yi waaye yaayam ji mu doon toppatoo tax ñëwul gis yonente bi sallallahu ko xam ne la ajidu fekk booba kookoo fa nekkoon naan bari na jaam boo xam ne ay sagar lay sol tilim wañ ko te bu ne suñu borom defal lii mu def ko abu talib bin makki wax na ci qawdul qulub nee na inna lillahi ibadan law saaluhu an laa yuqima saata lam yuqimha suñu borom am na jaam yoo xam ne buñ ne ko woon du saa taxaw mukk suñu borom dana ko fomm jaam ñooñu jaam boobu ñuy wax waysul xaram yi yonent bi salaa sallam ne woon na abu omar yaag ali yéen a koy gis sidna ali na sidna omar ñoo ko gis dañ ko gisee ñu taalal ko seen loxo ne ko ñaan loo kenn ko ah Muhammad ibn Abdullahi Muhammad doomi Abdullahi yéen di gis leen ci moom lu dul takk ndoram Sidna Omar ne ba ah Sidna Abubakar sax mu ne ko ba Sidna Abubakar sax gisul ci moom lu dul takk ko waaw yow nag ndax gis nga alxaqiqatul muhammadiya muhammadiya mu di ma muril kiiraay yoo xam ne benn bu ma ca jege woon rek damay seey من لي أن بانينا أريتني سر رسول الله فقال لا إله إلا الله يا أحمد بن دفا طلوان طلواي بو خامن ليغي لا سان بروم بومو گرم كو بس كو نيهون جام نيب بوك دي جامو سون بروم يوم الخيام من لي تاب من كو تابل لي سفر مو تابل كو سفر كو دوكو لي لوتاخ wala jaam ñëpp bokk koy mooy ba keroog mu ne ko tabbal leen àjjana mu tab mu daal di koy mu daal leen di tabbal àjjana te du leen lu tax olamaa yi nee ñu nubuwa am na sirru boo xam ne su feeñoon la batalatil wala wilaayati wilaaya am na su feeñoon la ne suñu doomu aadama yi moom rek la ñuy jaamu lu ñu jaamu keneen rawatina jëmm joo xam ne da ngaa doon yonent bi zaahir ak baatin ba nga xam ne képp ku la umpale mu wàññi ko képp ku la weddi alku tawaafu kulli man alayya ankara inda al ilahi wa nabi la muskara képp koo xam ne weddi nga ma boo demee ca kaaba ga di ko wër yonent bi du sant yàlla du la sant ويسنا للنينة أجل الذي ماذا عني ولم يتوب شقاوة تدوم في أم الكتب يوم كيف كو خا ني خاتيو لا مان درا تتوب لوكو تاب يوال مودي تخيري غني بند تا ماي تيري تا دوسي كو فرق أه، بما يبغي واخني في مثال ci leneen lu dul ci Ahmadou Bamba pour nga nangu pour yow mi nga xam ne sax doob taalibi wala xamuloo ko nga xam ne li ma lay wax teguma ko ci kaw xalaat wala jort wala dara bëggoon naa ku xam dëgg-dëgg tasawuf bu posé na question yu bari yu xool ci wet googu ndax ku ñu wax Sahl ibn Abdullahi Tustari kenn soxalu mu mun وهذا سهل بن عبد الله السليم مرتبة بن بلير محقق نيب ني سيدي توبا اغونتي سهل بن كان ني اغونتي واي نينا بسو بروم بيندي روحي رك تا بيندغول جامي بيندغول بن جيم داف لين تي تيام بام ني الست ربكم ndax duma seen borom ta roohu yent yalla mu sallallahu alayhi wasallam ñëk ne bala roohi yent yépp tegu ci ne balé roohi awliya yi tegu ci yu siddiqoon ni ak suhadaaw yëpp saalixoona yi ba mu des ruuxu ñi nga xam ne yéefar la ñuy doon ñu ne balee ci kaw lu leen neexul ci kaw sëngi la bañ sax lu mu ne abdullahi nee na keroog bis booba maa xam naa leen keroog ñi ma féete woon ndeyjoor eh, ci kanam xam naa leen ñi nekkoon ci sama gannaaw xam naa leen bisu keroog laa tàmbalee kër na ko képp ku jéblu ci moom bérébam ca àjjana ñaata fan lay bind xamal ko turu ndeyam ak turu baayam ak li muy bind lépp te loolu li si ahmadou bamba wax waxuñu ko ñu war posé mu xaadimu rasul ay maqaamaam fan la ko sëriñ saam féetale ak yu mel noonu tab yi nga xam ni dox na ko pour àgg ci boromam yooyu nga xam ne dégg na ko te amu ci lu ko leer salaamaaleykum sëñ alasaan mbay may laaj nee na dafa am ku ko ne sëñ Tuuba bi ñu daatan am martaba xaadimu rasul ñu tuddee ko jéggi na juróom-ñeenti étape bi ma laaj itam ci gannaaw loolu man fan laa classé maanaam fan laa féetale fan laa teg ci Ahmadou Bamba maanaam na ma ko gise daal ci biir gaañit waaw defe naa bokk na ci ay question yi nga xam ne nee na ci biir murid am na suñ si jàppte te Ahmadou Bamba ne yàlla la loolu bëgg a tontu ne laaj bi njëkk bi ne ci juróom-ñeenti étape yooyu maanaam juróom-ñeenti jaarwaay yu mu jaar yooyu dëgg la lu leer la ne bi mu daataan nekk xaadimu rasul jéggi na ko waaye loolu taxu ko woon a nekk xaadimu ndax ñeneen ñu dul moom jéggi nañu ko te nekk du xaadimu rasul juróom-ñeenti étape yooyu mooy lan lu yomb la mooy rek li ñu tuddee maqaamaatul yaqin ndax yoon yi yoonu tasawuf rek laa wax kon yoon yu bari yëpp ci biir la nekk ndax yoon yi jëm ci yàlla nee ni mu ngi bare ne nooxi bindeef yi te xam sharia ak appliqué ko benn rek la ci ak li ci nekk ci diggante bi ci xatar maanaam ci danger ci li ma waxee woon sànq ci sañ-sañ suñu borom waaye maqaamaatul yaqin dafa dugg ci taxliya li ñuy wax taxliya mooy jiitu taxliya topp ci taxliya mooy lan ndax li nga bëgg a def dara da koy raxas ba mu set mooy jëmm ji nga bëgg a ci boromam da ngay raxas xolam ba set maanaam jikko yu ñaaw yépp dañ ci moom nga dog digganteem ak lëndëm booba ngay soog a mën a def sa ñam wu sell ca ndab la jii nga dindee jikko yu bon yi ci waa ji itam dox digganteem ak lëndëm nga ciy mën a jëmbat lu baax la nga bëgg maqamatul yaqin mooy ragal yàlla na mu ware dëgg dëgg ragal yaakaar yàlla na mu ware dëgg dëgg yaakaar te ragal gi du yàq ci yaakaar gi dara du ci wàññi dara yaakaar gi nga ko yaakaar it du yàq maanaam du wàññi ci ragal gi dara di sant yàlla ci xéewal yépp da ca war muñ muñ gu rafet ci lépp loo gis ci àdduna di tuub foo toll sallallahu alayhi wa sallam nee na di tuub man de bis bu ne danaa tuub lu ma téeméer yoon daf ko waxee noonu rek waaye nam mooy lim bi waaye bi la jublu dëddu nga àgg ca dayoo dëddu ba wakkiilu ci yàlla bàyyi ko sa mbir nga àgg ca dayo ba riba mooy lépp lu yàlla def mu neex la nga gërëm ko kooku am nanu sa bu ndaw buñ fi wax ya ibrahim ibn adham dan tukki dem ba jubub ba soldat soldat bi di ko laaj dëkk bi yoonu dëkk bi fan la parce que boobu kami mu ngi ci xaal boo xam xamul ci di dëgg ko moom mu joxañ ko bàmmeel yi kooku def daf koy foye mu ngàdd ko mu rot ci suuf ba mu mu laaj ba ko bi lay laaj ba ca ñetteel ba suñu àndaloon ak si ñu koy ay waa ji de yow xanaa xamuloo ne kii mooy Cheikh Ibrahima mu lay wax mooy dëgg si moom fooyewu la mu ne kon dina ma baal sëñ bi baal ma mu ne ko ma dóoree ba ma daanu ba ma daataan jóg ñaan naa sama borom ba mu xamal ma ne ma baal na la ma soog a jóg ñu ne kookoo àgg ci yàlla aarif billaahi dana déedéet du kooku Cheikh Abdourahman ibn Awf ne ànd na gant bi sallallahu alayhi wa sallam moo àgg ci yàlla ndax mu ne ko lu mu def mu ne ko moom di ba mu xëccoog benn soxna jugu tool fii ne ko fii la rëdd yi yem maamoom lii fii ne ko di dem loolu bokku sama tool la fii la rëdd yi jaar mu ne ko yàlla na la yàlla rey lakk la soxna sa jékki ba guddi mu jóg bëgg a semp bante yi doon soxal rëdd wa daan ci kàmb bu ñu taaloon ak xatax dal di dee mu ne ko naka nga waxee ne kii nga xam ne dañ koo tooñ muñu ko ngir yàlla lu dul di fayu na mu gënee àgg ci yàlla ci nga xam ne li yàlla def neex na ko jënd naa ne toppul waa ji benn xaq waaye day taxaw suñu borom balu ko ba mu xamal ne ko baal naa mu soog a jóg mu ko waaw fii dafa toll ci maqamatul yaasin rek ndax suñu borom def neex na ko te jaam nit yërëm na leen ngir suñu borom kee nag dafa doy suñu dafa wees foofu doy suñu borom ba mu teg ko place boo xam ne sañ naa jëfandiku ci jaam yi ku jaam sañ na laa yar jëngal lépp lu wane sañ na koo def ci jaam yi koo foofu gën a àgg ci yàlla moo tax ma ne maqamatul yaasin taxul sëñ Tuubaa nekk xaadimu rasul kon riba jooju ñu waxoon mahabba ci topp moo di sopp sopp amul dayo ñu rawante nañ ci sopp yi maqamatul yaqin yooyu ñaari nit mën ngaa gis téeméeri nit kenn ku ci nekk toll ci maqamatul yaqin te du tax ñu yem ndax jëm yi seen bopp ñoo wuute li sëñ Tuubaa waxoon ne bu leen ma gërëm gërëm leen law ba ji bu leen ma sikki sikki leen law ba ji moo di jëm yi bu nekk yàllaa ko bind na law ba ba yett yette këll ba boo yéenee borom këll bi li ci seet la ko mën a defal la ca xajul xaju seet sëñ Tuuba ñi ko dëngaloon seenu këll ku ci nekk seetal na ko waaye taxul jaam ñee yem moo tax mu ne bu leen ma gërëm gërëm leen law bu leen ma fikk fikk leen law ji kon daañu ci mahabba ak mboolem étape yi ñu waxoon ñu juróom-ñeent benn bu ci nekk dañ ci arawante ni ko li diggante asamaan ak suuf mahabba boobu muhiddin mu arabi nee na awliyaullahi wali suñ borom yu mag yi nga xam ne jalaalullaahi daf leen di jàpp ak mahabba si sawqi ba ñu seey ba ruy nekk ndox nee nañu ñooñu de liñ ci amee de tabi man mi nga xam ne li ma ci amee ilaahi la buñ ci fomkom lu toll ñu teg ko ci juróom-ñaari asamaan yi dana ko ruyal sama ni nga lu ma sax kon mahabba gën a foor jaam yàlla yi mën nañoo rawante ci lool ci mar euh, étape yooyu benn bu ci nekk bu nu nee nag loolu taxul ci Ahmadou Bamba di Cheikh Ahmadou Bamba gis nañ sax ci njuuj njaaj bi ci sëñ Moussa Ka di wax naan maqaamaati julle jeeki mbóoti fay fóor ci sag raw nga ko làqoon te tax ci laa foor si Ahmadu Bamba bu ñu weesoo yooyu waxoon na exposé bi léegi dina dañu seet xoli jaam mu ëpp ci cofeel ci yonente bi ak ci suñu borom ba tax ñu tànn ko jox ko xaadimu rasul def ko xaadimu rasul loolu ci ay xusuusiyaat yi nga xam ne moom la ñu bëgg a lenn la bi nga xamee ne juróom-ñeenti étape yooyu nit ki matale na leen gannaaw loolu ci la taxañu ñeenti dee yi ma waxoon kon waa ji foofu weesu na li ñuy wax muxaadara lan mooy muxaadara muxaadara mooy jaam bi nga xam ne ak ragalam yàlla toll na ci mel ne yàlla su doon jëmm sëpp ko taxawu ko jeesi fu mu jadd yoon mu caw ko ko nga xam ne li ñuy wax siraatul mustaqim imam alxasali misaale ko ne mooy alxuluq xuluqul muumini dëgg jikkoy jullit bu dëgg nga xam ne léppam daf koy nag ci àndaari sharia ba du ëpp du yées ak tabeem ci àndaari sharia la koy nag waaye du doon tabe bi nga xam ne tabe rek la ci moom dafa ndax ku tabe dëgg maye day neex ci yow loolu taxu koy joxe lépp lu mu joxe ngir yàlla tax ñu dem ci xeeti jikko yi ba yëpp jeex ñu ne kooku ni mu occupé juste milieu ci mboolem axlaaq yu tedd yi maanaam jikko yu rafet yëpp mu ngi mel na tey bu ñu nee nit kaa ngi jéggi siraat boor bii safara la di rëdd wu jub boor bii safara di rëdd wu jub bu ñu faboon mellantaan teg ko ci digg bi ngir muy daw boor yi gën a tàng ci wet bi di daw barab yi gën a tàng ci wet bi dañuy fekk mu deewee ci point boo xam ne bu équidistant maanaam bu ñu nattee diggante wet bi ak diggante wet bi ñoo yem képp nga xam ne bu fekkonte ne rëdd wu sew woow yi nga xam ne digganteem ak tàng-tàng bee ak digganteem ak tàng-tàng bee ñoo am képp mooy dee bu mucc ba noonu nga xam ne buy dox du jeng benn bën bënu puse ci gën a jëm ci genn wet la jikkoy waa ji ci àndaari séré am mate ba du yokk du wàññi li ko séré ak digal taxul mu àgg ci ak axlaaqul muhammadiya ndax si siddiq pour nga nekk ko juróom-ñaari sart yi nga xam ne moom la limaamul Xasaali yi wax nit ki bu jub xaabara noonu mu teewloo ne suñu borom a ngi ko sapp ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na al ihsaan ni ñu ko firee mooy di an taabudallaha ka annaka taraahu in lam takun taraahu innahu yaraak booy jaamu yàlla nga mel ne yaa ngi koy gis ndax ñi ngay teewale ci sa xol ne boo ko gisul moom mi ngi lay gis noonu nga koy teewloo ba nga xam ne dara ci adduna loo xam ne lii doo ko ñu ne def ci teew ak akuk màggam doo ko def mukk mukk mukk ndax xaala boobu nga dëkkee kooku mooy mu xadara boo fa jógee yaa ngi àgg ci mu kaasifa mu kaasifa mooy bu jikko yu bon yépp dañee lépp lu di bëgg àdduna dañ xol bi day set xol mooy bérébu roox roox mooy bu sirru xol bu setee lépp lu koy xëcc jëme ci àdduna tàggoon ak moom amatul benn rapport ak àdduna bu ko defee lu ñuy wax fatxu day ñëw day jàndoog rooxi malaayika yi ak yonante yi di jàndoog arasak kursi ak lawxul mahfuz di ko jàng waa jooju nga xam ne mu ngi ci Euh, jóge na ci mu muhaadara toll ci mukaasifa bu ci jógee day dem ci musaahada musaahada nag ni ma misaale woon ne nit ki ba mu séenee safara yu muy tàkk mu xam ne safara luy leeral la luy lakk la lu tàng la boo ca laalee tàng foofu la ci xam-xam yam léegi kenn ci moom dem na ba àgg ca teg ci loxoom xam ni mu tàngee kooku am na ci xam-xam waaye ci toraw mooy ci ñu ca sànni ci ñu ca sànni muy baddaañu xamatu dara ci àdduna nga xam ne ci moom daal ci xalaatam ak xelam dara lu dul safara amatul safara ko wër wet bu nekk féete ko kaw féete ko suuf féete ko ndeyjoor ak càmmooñ comme ku lab ci géej nii la ndox mi di mëri bu nekk noonu la mel ci yàlla kooku nga xam ne moo toll ci fanaaw bu ñu seetoon nag bu ca bu ca yàggee yàgg ko ba tàmm ko ba tàmm ko ba tàmm ko ba nga xam ne daanaka du ko yàqale si dara day dellu si mel na meloon moo tax ñu ne wali day yéeg yonent day wàcc yonent foofu a niroog nit a mate ndax nit ñi gën koo roy ndax nit la koo boo xam ne lépp lu ci a loolu dana nu indi ci nu waxtaan wa inna laa khuluqin azim waye waji bi nga xamne ne weesu na étape boobu ba nga xamne legi léegi amatul dara lo xamne ne loolu dana ko def ci ci mom wala ma di ko misale sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamne zaliqa ñi ko don sàkku dañ ko tëjee ci kasso bu bañ ko génné tamu mu évité ay nit ray ay nak di leen taggloo yàpp yi ñom ñu ko mosula gis bañ ko gisé dañu tiit ne ngam di ko xol ba dagg seen loxo mom mi nga xamne tam na ko gis loolu yëngal ko mi ngi ci sax ay mbiram di ko doxal mooy di leen seet ba xam nii ngeen di dagg seen loxo pour ba ëllëgee li ngeen ko doon ñaawale mu ñaawale leen li ko ëpp ñu ne kon zalixa si bopp moo toll xam ne ci fanaa rek boo xamee ne nag jaam bi muhaadara wesu mu kaasifa ba dikk ci tamkiin tamkiin boobu ci boppam noo ngi bëgg a dem ci misaal mi nga xam ne moom waxuma xaadimu rasul bi ñu ko tuddee ndaxte loolu taxsis la ndax fadlu li ñu tuddee ngëneel ñaar la al fadlu xusuusi ak fadlu dañ ko suuf ci yéen jëf xam ne mérite la dañ koo jëf ba ñu may la ko nit ñi xare woon badar ak ñi nga xam ne ñoo dàq jaamu yàlla ci adduna ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo jëf yeneen jëf yépp ak amalu fadlul euh, xusuusiin mooy ngëneel loo xam ne dafa neex yàlla rek ñu def ko ci yow li nga xam ne noonu la te ahmadul kabir ne li nga xam ne moom la nee na sëñ daaru asan njaay la ko góor di jiitoo ci yàlla la ko nit jiitoo ci yàlla ba mu topp la luy soob sans borom la mu def ko ci jaamam waaye bi see muy loo xam ne góor gu takk bi rek koy liggéey loolu mooy fadlu tax si fii fadlu si ni nga xamee ne màkka noonu la gën a ak madinatul munawara Makka ak Madina liggéey ñu dara lu fàtte ci des liggéeyul ñi nga xam ne jàkk yi noonu lañ gënee marché yi fadlul taxsis yun la ñi nga xam ne bisu ajuma la gënee yeneen bis yi fadlul taxsis yun la ñi nga xam ne koor noonu la gënee yeneen weer yi fadlul taxsis yun ñi nga xam laylatul qadar ci biir ramadan fadlul tax noonu la gënee yeneen weer du loo xam ne ñooñu ñoo ko lu neex yàlla mu jëf loolu moo tax xaadimu rasul taxsis la boo xam ne suñu borom ko defal daanu ci dikk classé classé bu ne ko question bi ñu salaamaaleykum question bi ma njëkk a présenté ma war ci njëkk a tontu question Serigne Makhtar Mbeng ñuy laaj xaqiqa ak sharia lii seen rapport nan lañu ñu demee ndax doomu aadama bi jullit bi jëfe xaqiqa sànni sharia fële ak ci jëfe sharia sànni xaqiqa fële kenn ku ci nekk lan moom la sa jëf ci jur nan la lay yoonu lislaam gise ma di ko wax ne lislaam ci boppam mooy boole xaqiqa ak sharia ñu commencé tontu question ci wax imam malik bi nga xam ne moo ne ku nekk xam ne ne xaqiqa tasawuf mooy xam-xam bi koy étudier bi koy gëstu sharia fiq tawxid imam malik sëñ tuba wax na ko ci masalikul jinaan wa man tafaqaha bila tasawufi fa zu tafassuqin sarihin faarifi koo xam ne ci jàng nga sëq jëfe ko te faale woo tasawuf maanaam ilmul xaqiqa ba ñu tontoo laaj bi dafa yàgg ca imam malik kenn ci borom ñeenti ngir yi nee na kooku faasiq lañ ko tuddee faasiq mooy koo xam ne ay jëfam dafa ñaaw jëful jëf yu rafet amul jëf yu rafet ki nga xam ne dafa mooy ci xaqiqa bàyyi sharia fële jinn bi yëpp lañ ko tuddee jinn bi yëpp mooy kan mooy ci seenal mbir nëbb kéefar ci biir li ci yoon wax rey mu dem nag ci loolu balaa lislaama mat nit ci boole sharia ak xaqiqa lan mooy sharia yonte yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ba ko suñ borom yónnee dañu wax ne doomu aadama yi ci kaw suuf yépp dañu mel ne ay malade ñu feebar yonent yi di ay docteur yu ñuy faj ci bi ñu dee ay docteur yu ñuy faj ci faj dafa am loo xam ne mën nañ koo boole ci faj mi mën nañ koo def muy loo xam ne mooy tax faj mi yomb loole la ñëpp mën nañ koo bokk waaye buñ ci jógee kenn ku nekk sa feebar kenn ku nekk na feebar ba yàgg ci yow kenn ku nekk fa sa deret bareet ni mu néewee ak kenn ku nekk ñi nga ndawee ak ñi nga mage loolu lépp dañ ci tenir compte ci bu ñu lay faj loolu moo tax ñu war a boole aqiqa ak sariya dama leen koy misaal moo di ñu li Imaamul Xasaali yi waxi ne ni nga xame ne docteur bi bu téeméeri malade ñëwandoo ci moom mu boole leen benn prescription ñii daañu wér ñii seen tawat des comme desoon ñii dee ñii seen feebar yokku ndax nit ki dafa bàyyiwul xel ci yi ma tuddoon léegi yonent yi nag dañoo bàyyi xel ci yooyu ñu tuddoon bu fekkee ne dañu ne mbooloo ñu ñëpp ñoo bokk benn feebar feebar bii su ko amee bañ nga ñaan ñam sàngam bañ nga ñam sàngam bañ nga ndox sàngam bañ nga ndox sàngam ñam sàngam ak ñam sàngam ak ndox sàngam mooy tax nit ki yomba faj mën nañoo boole régime maanaam euh, façon lekk mën nañ ko boole malade yëpp mën nañ leen boole façon naan yëpp bu ko defee kenn ku ci nekk nag la lay faj di lu aju ci yow docteur bi mooy seet ci moom yu bari yoo xam ne day seet nit sant ko loo xam ne sant ko kee xool ci sant ko koo xam ne sant ko kee naka noonu itam seexul xaqiqa sëriñ bi nga xam ne moom nga jox say mbir mu di la faj ci xaqiqa yow malade bi bu fekkee ne werante woon ak werante woo woon ak moom dara dara dara xaqiqa bi ñu lay jaarale fekk cari at bi mooy li yonent bi indi woon nga xam ne moom sañu la cee dara boo ci wàññee dara wala nga yokk ci dara bi ñu lay garab bi nga bi jëriñ mooy cari at bi xaqiqa ba nag bi nga xam ne moom la la médecin bi di digal muy yow kenn ndax ku nekk xam na ne julli defe ko na mu gënee woor defe ko ak yëpp du tee nit ci mën na julli na mu waree di woor na mu waree te defe ay bakkaar ak ñaawteef ak jikko yu bon li nga xam ne nag mooy xaqiqa moo lay wan na nga mën a jëfe ba dindi jikko yu bon yooyu yëpp dindi melo yu ban yooyu yëpp ndax dëgg la julli ci boppam ak woor ak restriction yi nga xam ne yonent bi indi na ko yëpp nit ku ci topp daf lay fóot waaye nag fóot moomu dafa aajo itam ak gunge maanaam ku la ko gën a mën a leer ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ndax muy misaal ni julli amee it eh, ahamiya ni mu amee maanaam ni mu itteele mu ne ci yéen bu amoon dex bis bu leen fóot ca wala mu sangu ca juróomi yoon ndax dana amati ci ñu ne ko déedéet mu ne noonu la julli juróom mel julli diggante julli boo julli day far lépp loo war a def sa diggante ak julli gay ñëwi ci kaw bu ko nit gisee na nga ko war a gisee ndax buñ seetee julli ci ci génne xaq ak sharia ndax sharia li mu lay wax maanaam a li mu lay xamal ci julli li la ciy sant moo di rek na nga fab ndox moo xam ne soppikuwul ci meloom soppikuwul ci caxtaam soppikuwul ci xetam nga jàppe ko ci melaw yi ko digalee toog ba xam ci sariya lim lay wax maanaam fiq lim lay xamal ci julli lim la ci sant moo di rek na nga fab ndox moo xam ne soppikuwul ci meloom soppikuwul ci caxtaam soppikuwul ci xetam nga jàppe ko ci melaw yi la ko digalee taxaw kabar boo yëkkatee sa ñaari loxo nga xam ne ngëneel la nga ne allahu akbar jàng fàtte ak saar rukoo siggi sujjoot ba mu melaw julli yi mat nga sëlmal foofu sariya jeexal na ci la ca def yoonam ñëw ci waaye xaqiqa moo lay xamal ne boo kabaree da nga xarmal armal mooy lan dugg ci béréb génn ci béréb léegi yaa nga ci bitti bi nga doxee ba dugg ci biir salle bi amee nga àtte salle bi léegi ameetoo àtte bitti kon nit ki bu mu kabaree wan na ne fase ne adduna ak li ci biir dootu ko xalaat xelam dootu ci dem dootu ko jëfandikoo dootu ko xool dootu ko itteewoo léegi mu ngi deeyaale boromam mu teewlu ne yàlla ci boppam ak màggam googu mu ngi mel ne ku taxaw sapp di ko seet di contrôler gisam yi mu fàttali ko taxawaayam ca saa yamal fi am ci kanamu yàlla moo def ci saa yëpp màggaayu jàng fatiha def ci xelam ne moom kat alxuraan ji muy jàng yàlla suñu borom ci boppam moo koy njëkk a wax te ay waxam la du waxi keneen bu rukkoo mu wane ne mu ngi damm boppam mu ngi sëgg ci kanamu màggaayu yàlla bi bu këppee jëxam ci suuf moo di place bi gën a ci moom muy kanam bi mu teg ko suuf du dara lu dul sorax lul yàlla wane ne man duma dara suuf si ci lañ ma bindante ci laa jëm wàcc fa def loolu ci sa xol ba sa xol tiit sa cër yëpp yëpp màggaayu yàlla boo saxoo loolu leeri julli dana la dikkal bu leeri julli dikkee day màgg waxtu woo gënee di julli tey gën a matal julli ga leeri julli di màgg bu koor ñëwee tarbiyatul iraada mooy li ci jiitu léegi suñu borom mi ngi lay jàngal muñ ci koor boo maree bañ a naan xiis bañ a lekk maanaam noonu nga xeexee sa bakkan dañoo bëgg nga tàmm ko boo waree itam bul dal dina li ma rawoon ci lekk ak naan naa ko dabu da war a tàmm muñ googu ci lépp loo xam ne ngërëmal yàlla nekk ci jullit bi bu saxoo lii day jikko yu bon yi day set jikko yu bon nag ci ni nga ko mën a misaale mooy mbooloo moo xam ne kenn foog feebaru ca kenn woppu ci kenn ragu ca kenn amu ca benn microbe wala maladie nga gaana wala nga siti ràmm bëgg a jaxasoo ñoom duñ ko nangu naka noonu mun la dugg mukk ci déey yàlla yi te jikko ju bon def ci sa xol julli ak woor ak mboolem bi lislaam santaane dana raxas jikko ji ci kaw boo ko xaq sa mooy lenn li ci nekk la taxoon mu jóg nga xam ko di ko jëfe ànd ak teewlu ak sellal sa xol ci bépp jikko ju ñaaw bépp jikko ju bon ndax xëy na dana di ci yeneen question yi dama bañ gudd ko bëgg a liquider ci yeneen ci li la gën a na mu gën a gàtte nga jàpp ko moo di xaqiqa mënu la dem te sere adimul ndax xaqiqa bi ni ma waxoon ci teewlu gi yi nga war a teew yëpp boo ko teewloo te julliwoo yonente bi gis nga Sëriñ Tuubaa ci boppam wax na ne sunu boroom du nangu mukk jëf di ñu jaarewul ci ñu yonente bi indee moom mi ñu yónni ne suñ borom set nii la santaane ne nañ ko jëfale nii nga wàcc ko dem jëf sa jëfi bopp lu jëf je niru niru niru lu am maanaa suñu borom du ca sant te du la fay dara kon nag da ngay te itam gis boo ko gisee ci bitti te sellalooyu ko itam du la jëriñ dara kon xaqiqaak seree lenn mun cee wàcc morom ma loolu rek laa lay tontu boobu laaj mbub sa tom sa laaju ñaareel moo topp ci bu njëkk bi war mu ko euh, bàyyee tontu léegi waaye bëggoon naa am lu ko jiitu ndax am na yu yu ñu war a wax ba àgg te moo di dangay ngay laaj illa yaqaadu llaahu maa lam yakun wala yakun abadan li mum si ni lan a tax sëñ Tuubaa wax ko du ma aventure mbukk ne la sëñ Tuubaa day lii tax mu wax lii waaye dinaa la jox tegtal yu bari bu soobee yàlla ni nga xam ne beneen jaam bu dul sëñ Tuubaa wala sëñ Tuubaa wax ko ko la mën a wax lu wala lu ko fi njëriñ ci yow illa yaqaadu llaahu maa lam yakun wala yakun abadan li mum si ni bu ñu tàmbalee ci lu ñu solo ndax sidna abubakar nee na inna dinana mabniyun ala naqli la ala munasabati aqli suñu diine ji dañ ko teural ci toxal manam da nga nan yonent bi neena jibril neena na suñu borom neena wala diw neena na diw nee yonent bi neena waye do set li ci taxal ak lu mu rafet rafet ngeene ni la lu loolu nag nu bàyyi ci xel tax nu tambale ci ne jële na ko jële ci mom ne dañ tuubaa ba mu jógee set da di jaamu yàlla ba suñu borom won ko yoolu jullit ñi ko jiitu ñëpp xeeti yool ya ak nañu toll mu gis ne yoolu ñi xare woon badar la ca gën a xemmem mooy ca gën a rëy gën caa rafet gën caa mat gën caa xemmeemu mu laaj sunu boroom na mu koy amee mu ne ko wéy na julli mënatu la koo may jàng mënatu la koo may woor mënatu koo may xam le nit mënatu koo may jëf jenn tuyaab mënatu la koo may ndax wéy na ba mu naagu mu ne ko waaye danaa ko jaay moo ñu ko ne ko ndax sañ naa xam njëgg mu ne ko waawaaw waaye ku dul yow jaar na ci laaj ko te ku ma ko ci wax da nga koo woon gannaaw ndax duñ la nattu nattu wali nattu yonent lañ lay teg te bu ko sa bakkan attanul nga dee mu ne ko bu ma ko sañee xam naa ko xam mu limal ko yooyu am ko limal daañu ca lim doo dox wu ci say loxo doo gees sa gannaaw doo lekk ba suur doo tëdd ci lal nelaw doo toog waxtaan la la neex doo téen asamaan lim nañ ko ba muy yu bari boole la ak say noon samaaniye xijajin lu ñu xam ci lu bon yàlla kàttanal leen ñu di la ko def ci lu metti ak loo sib bis boo nee lu ma jotee yéen lu ma la mayoon danaa ko nangu bis boo nee uh, lu ma la mayoon danaa ko nangu bis boo xam ne sa gëm wàññiku na lu bon bon du ma récc sa gëm yem ci waaye dama lay alal ba mu ko waxee ba yowee ne mu jeexe mu ne ko nangu naa ko teg ma ko ay dégloo dégloo ba sëñ Touba xamee yan boobu yenu ko ba àggale ko fa mu ko war a àggale ñu limaale ko ci ahlu badrin ahlu badrin mooy bu ñu seetee jullit ñi dañu naan ñooy ñi ci gën a rëy mbir ñoom rek la suñu borom ne lu leen neex def leen sañ leen ko su di leen dara ulama yi bu ñu dee seet ñi gën ci jullit ñi dañ leen lim ay catégorie ahlu saqifa tudd nañ leen ak ahlu daari nadwa waaye ahlu badrin lañ teg ci kaw ñi yëpp seen gannaaw la ahlu bayati ridwaan soog a ñëw ahlu badrin ñoo ñu doon xare bala nga xam ne bu dul woon ñoom lislaam du taxaw ulamaaw i dem nañ ba seen fas yooyu ñu doon war di jihaaral yonent bi puurit muy génne ci gémmiñu fas yi buñ ko peesee moo jëfi wàllu yu kamaal puurit maay wat jëfi wàllu yu kamaal sëñ Tuuba sun borom defal ko fekkewul jamono ya mu boole ko ci ñooñu yéegal ko ci seen kaw illa yaqaada mu ne illa yaqaada allahu ma lam yakuni wala yakun abadan lil mumkini am na lu ci def waaye daanu ci dem ci question yi bëgg a ñëw bu soobee yàlla question nee na day laaj ñeenti dee yi nga xam ne balaa benn jaam ngay suufi bala ngay àgg ci yàlla dee bi ci ne da nga ko mos waxuñu yonent ndax nubuwa moom suñu borom daf koy tabaxaale ci nit borom kashfu bu taxawoon fekk wali yi taxaw akub yonent bu xoolee yonent bi dana gis ci jëmm ji nu nubuwa ga nekk ci biir waaye wali bi nga xam ne kenn fat xoogu ko bu ko xoolee day mel na jëmmi nit ñi rek loolu moo tax waliyu aw meloom istidaad bi rekk lay judduwaale maanaam disposition yi xam nga nu ma ko mën a waxee ci wolof waaye fatxu gi day liggéey ba am ko yonent nag luñ ko tabaxaale la mën nañ ko war a waaye kenn mënu ko see dindi moo tax ñu ne yonent du yàqule wali nag dana yàqule feeg gisagul nabi muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kon jëmm jooji muy waliyu wala muy siddiq wala muy xutbul xaws wala muy nit ku baax ku mu mën si doon judduwul àgg ci yàlla am na lu ko dese li ko dese mu di yoon wu mu war a jaar ba àgg ci boromam yoon woowu lan wax ne ñeenti dee ngi ci dee bu bulo dee bir dee gu wert gu weex gu ñuul gu xonq nit dana dem ba dee dee gu njëkk gi mooy bokkatuli nit ñi dara bokkuñu lu ñuy yëg bokkul ak nit ñi lu ñuy yëg bokkul ak nit ñi lu ñuy gis bokkul ak nit ñi lu ko neex bokkul ak nit ñi lu ko intéressé Sayyidina Junayd bi ñu ko laajee maa sifatul aarif lan mooy aarif billahi nit ki xam yàlla bu defee ne kaana huna fa dahaba mu ngi woon fii dem na ñu dellu ko fa laaj mu ne kainun bainun maanaa kainun fi zahirihi ma al xalqi wa kainun wa bainun anhum li annahu kainun ma al xaqi fi batinihi jëmm la joo xam ne ak saahiram day nekk ci biir nit ñi ñu di ko gis mu amee bopp ak loxo ci tànk du wute nit ñi dara ci saahir waaye biiram jotewu ci nit ñi dara lañu bëgg bëgg ko lañuy wut wutu ko lañuy gis gisu ko lañuy seet seetu ko kooku mooy borom dee gu njëkk gi deewum ñaareel gi day dem ba yemale lu neex ak lu naqari deewum ñetteel gi day yemale ku ko tagg ak ku ko yi xam lenn dong la xool ci àdduna mooy yërma mooy yërmande yàlla ak ngërëmam leneen du ko gis dégg ko ñetteel mooy duutu yëgati métit am na ci arifuna billahi koo xam ne tànk ba dafa ngaloon ñu gis ne dañoo war a dagg tànk bi waaye ku ñàkk xit la woon doom ji ko xam ne docteur bi na nga nekk ba mu kabar di julli waxtu wuy julli moom boo baxaloon ndox sotti ko koy duna yëpp nit ki balaa àgg ci yàlla dana dem ba mbindeef yëpp mel ni amuñu buñ ko bokkoon ñoom ñëpp jublu ko buñ bokkoon ñoom ñëpp won ko gannaaw buñ bokkoon ñoom ñëpp di ko lor buñ bokkoon ñoom ñëpp di ko jëriñ yooyu la yemale képp dara du ko itteel lu ngërëmal yàlla dara du ko neex lu dul bànneexu ci leeri boromam dara du ko itteel lu dul maqama mu yëkkati yomal yëkkati ko yomal xiyaam ñeenti dee yooyu dafa tekki rek nit ki ni muy jaareeg bakkanam di ko tere lu ko neex ba mu sax ci moom ba mu melowoo ko ba nga xam ne daanaka duutu nit kooku mooy deegu nga xam ne moom matale mooy bi ñuy mooy deegu bula gi moo mujj ci dee yi dara ci àdduna ameetul dara ak sidna abou bakar siddiq radiallahu anhu dafa toll jamono yoo xam ne buy wax res wu ñu wàjj di la xeeñ lu mu woon res boppam la woon ragal gi mu ragal yàlla njàqare li mu dëkke jàkkaarloo gi mu jàkkaarloog màggu boroomam tàngaay yi muy jur ci biiram ñoral res bi muy dund buy wax muy xeeñ buy noyyi muy xeeñ kooka moo tax euh, euh, naa muhammad sallallahu taala wa sallam ne man araada an yanzura ila mayitin yamsi fawqa sara falyanzur ila abi bakrin képp ko bëgg a gis kuy dee tam ku dee ba noppi tey dox ci kaw suuf xoolal abou bakrin dee googu sayidina abou bakar mooy sayidul aarifina yoon wa mu jaaroon la aarifuna billahi yi jaar faw ñu taxañ ñu jaar ci yoon woowu yoon wi nag bu nu seetee dee yi daanu ne ñeent bu nu seetee maanaam xadaraat yi daanu ne ñett ndax diggante muhaadara ak mukaasifaat musaahada waaye bu nu seetee maqamaat yi ci digg bi xëy na daanu ca àgg am na question yoo xam ne dana war a indi loolu beneen bi maqama yi demee ni ki wusuul fanaa baqa tamkin mushahada daan waxtaane benn bu ci nekk jaam bi na muy def ba àgg ca bu fa tolloo lan mooy ay merom bu fa jógee fu muy jëm ba fa àgg waaye yem ci bu ñu demee ba am na laaj boo xam ne mu ngi laaj man nan laa classé Cheikh Ahmadou Bamba ci biir wàll yi bu boobaa waxtaan woowu loolu dana ci génn ñu dem ci beneen laaj kun kun bi si Ahmad Bamba ne jox nañ ko kun kenn mësul a solo kenn mësul rapporté ci ulama yi fu ñu joxe kun lu dul doomu aadama lu dul doomu aadama kañ la kun ma a njëkk a feeñ ci taarixul islam ci taal Tabuk keroog ci Tabuk metti na metti goo xam ne xam ngeen Arabie saoudite ni mu tàngee di désert ay montagne jamonoy tàngaay amuñu yobal bu doy amuñu ndox mu doy fa ñu jëm sori sallallahu alaihi wasallam ne digal suñu borom dik na julit ñi nañu dem tebu war way yu doyul amon na sax ñoo xamne ne ci si ci seenu gëm te def nañu gannaaw maanaam demuñu ndax metti ay ku melni ne Kaab ibn Malik Hilal ibn Rabia Umayya Umayya ibn Rabia Hilal ibn ibn Umayya ñooñu ñoy ñepp ñi alquran di wax wa ala salatu لقد تاب على النبي والمهاجرين الذين تابوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فرق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض النار رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مزيا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إلى الله والتواب الرحيم bi nga xamee ne ñi gën a déer gëm ñëpp dem nañu sallallahu alayhi wa sallam seetlu na sayidina abu zarrin gisu ko ci saaba yi yonente bi sallallahu yool bu mag bi ak ne suñ boroom dana mere ab diir ñi des gannaaw ñu seen jëmm ji ñëw te seen xamul lu mu doon mu ne ko kun aba zërrin mu daal di nekk sidna abu zër foofu la kun commencé feeñ kun nag ci àdduna la ñu ne kenn mësula solo fu ñu ko joxee jënn jëmm ji dul doomu aadama maanaam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ku ko doon dox nañ ko ahlul jannati waa ajana ñoom ñëpp kun la ñuy amee luñ nen na nekk loola nekk loolu mooy kun kun nag am na question yu yëwi du ma ko fàtte bu soobee yàlla daan waxtaan ba ci kun diggante kaafam ak noonam ak jaam bi nga xam ne moo am droit ci di xaar kun ñëwal ko ci ñaareelu question ba tey mu may laaj iblis na mu demee xam nañ ne am na ay xisa yu bari yoo xam ne dañu wax ne iblis jinne la woon inna inna iblis kaana min al jinni fasaqa an amri rabbih afatattaxizuunahu wa zurriyyatahu ilaah iblis daañu yenn pista yoo xam ne ñii jàpp nañ ko xuraafaat ñi tudd nañ jàpp nañ ko amoon mais malaayika yi am na ci béréb yi suñu borom yi yoo xam ne ay jinne ko dëkkee woon ba fa malaayika yi ñëwee xatal jinne yi ñu daw benn bis ñu fekk leen ci benn pàcc ñu daw wacc fa xale bu jigéen bu ndaw ñu for ko ñu koy garde gannaaw seytaane la su jekkee ba ñu nekk ci seen wax yi ñu nekk ci extase yi ñuy jaamoo daan dem ci malaayika yi seen xeetu jaamu ni mu demee ak xeetu jaamu yu doomu aadama ci fu ñu demee ci wa innaka la ala xuluqin azimin jooju sëñ Tuuba tënkee muqaddimaatulam daa ñu ne naka jànq soosu bu mu demee ba nekk mag na ci jànq boo xamee ne rek dem na bay jéem a yàqal malaayika est-ce que malaayika seytaane mën na koo yàqal wala déet ndax ab yonent malaaka war na mën na koo yàqal wala déet daan ci dem bu dikkee dal di ñoriku ñu wan ko gannaaw dem ba ñu jàmbat ko ñu digal leen lañu fab gilim ci safara ñu wax ko ci bu ko defatee ñooñu suñ ko defee la ëmbee muy iblis ci wax ñooñu nee naa leen xesta boobu am nañu ko dëggal am nañu ko def muy xuraafat lu ci man di am iblis am na jàmb moom borom bind la dooleel ko nettali xistaam ak aadama nee ñu nekk na sangub malaayika yi waxuma malaayika yëpp ndax malaayika yi am na al na ñu tuddee al aaluuna mooy ñi nga xam ne kenn digalu leen woon ñu sujjóot ci aadama al aaluuna min al malaikati wal afraad min al bashari xaarijuuna an daairati al qutbi al xawsi ñooñu suñu borom digalu leen won ñu wara a sujjóot ci aadama waaye malaayika yi doon ci suuf ñom lañ digaloon ñu wara a sujjóot ci aadama iblis nekkon ci kilifa mas na jàng ci lawxul mahfuz ne suñu borom dana digle ji buñ ñëne ba mu yag lo xam dana am jam bu ko weddi bu ko baña def bu keroogee jaam boobee suñu borom dana génne dana ko far ci diwanu malaika yi dana ko yóbbu safara muy kilifa ak way texee bi ñëpp moom ci boppam mu dal ne lii mënula am suñu borom ni mu mel mënula digal kenn nga bañ koo def ba ñu tabaxee aadama alayhi salaatu wasalaam suñu borom digal iblis na ci sujjóot iblis bañ ne ndax moom ci safara lañ ko bind ñu ma ngay genn ko bindu ci safara googale woon ñeneen ñi wax leneen safara dafa leer te ba nit dafa ñuul aadama ñu ngi ko bind ci ban te iblis jàppoon ne kaw suuf si booba moo ci gën ndax mooy jiite malaayka yëpp te mënuloo def benn sibra ci kaw suuf mu si jootul mu ne itam mu ngi seet ba xam li ñu waxoon li mu digloo gisoon ci lawxul mahfuz ne dana am ku bañ bu ñu bu suñu borom diglé ndax dana am wala déet ñi di ko romb ci sujet ba mu des mom ñu dal di ko tëgër bu jofu ah yow na da nga dul sujjoot da nga dul sujjoot foofu nag jàpp ko mu dal di ne moom moo bañ suñu borom laaj ko mu ne mom mo gën adama iblis nak bobu la dal def mom tahaddi manam mu sànni defi suñu borom la lahum thumma لأقعدن min bayni aydihim wa min khalfihim wa an ومن wa an أيمانهم wa la tajid aktharahum أكثرهم mu ne suñu borom yow de maa woyta nii yow de dawloo nga ma génn nga ma ci ñu baax dugal nga ma ci lu bon def nga ma may aji texee di def nga ma may nit may euh, jaamu lëndëm boo xam ne dafa dëkk ci lëndëm jóge ci lëndëm jëm ci lëndëm waaye sa jaam ñi de danaa taxaw galandu ci sa yoon wi nga xam ne ci la sa sopp yi war a jaar ba mucc danaa sa galandu kenn du fa jaar danaa leen dikk te jóge leen ci seen kanam ak seen gannaaw danaa leen jóge ci seen ndeyjoor ak seen càmmooñ te bu soobee yàlla danaa far ak cant ci seen i xol suñu borom ne ko na daal di ñaan suñu borom ne ko na nga ma may kattan suñu borom kattanal ko mu daw daw waayu dara doomu aadama mën a daw diggante yàppam ak deretam loola la fexe ba génne adama àjjana suñu borom nag ne ko inna ibaadi laysa laka alayhim sultaanun sama jaam ñi nga xam ne sama dëgg jaam la ñu maa leen tànn daw man ci ñoom nag dara te euh, yu bare bare bare yu ci am na question yu ma wax leen rek ne Iblis am na ñaan na suñu borom nag ne ko na ko yéexe ba ñuy dekki suñu borom ne ko déedéet ndax bu boobaa dee day jeex waaye danaa la may ba ñu ëpp buuf te ñu maanaam rek fii doomu aadama ngi dox ci kaw àdduna Iblis a ngi dund. mën a soppiku fanweeri milliards yi jëmm yoo xam ne ji ci nekk ngay yàq daañu wax sax ne suñu borom daf koo jox xoyum góor ak moom jigéen fu mu toll di booloo di jur ay ay milliards ak milliards ak milliards. suñu borom daal daf ko kattanal li gën a gàtt kattan goo xam ne genn doomu aadama jumul lott nga ci mucc ko bu yàlla doxul seen diggante ba tey moom ci question boobu mi ngi laaj euh, euh, l'âme bachérique c'est l'âme angélique malaaka daañu wax ne sëñ Tuubaa bind ne ko malaayika yi suñu borom daf leen bind ci leeram amuñu dara lu lëndëm du ñu lekk du ñu naan amul dara lu neex ci ñoom lu dul jaamu seen boroom wuute nañu doomu aadama yi ndax doomu aadama maanaam synthèse la maanaam masige la lépp lu yàlla bind daf caa sàkk def ci doomu aadama sàkk ca ci biir doomu aadama lu représenté loolee malaaka maanaam lu basiit la amul ay xaaj leen dong la ndax ruux ci boppam bi ñu laajee limaamul Xasaali lan mooy ruux dafa ne kenn sañ cee waxtaan ndax loo xam ne ni digaluñu woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mu mu mu firi ko mu expliqué ko beneen jàmm sañ cee wax ba ñu laajee yonente bi sallallahu alayhi wa ruux dafa ne alquran dafa ne ko yas'alunaka ani ruuxi qul ruux min amri rabbi ñu ngi la laaj ruux ne leen ruux ci mbir yàlla yi la bokk maanaam min aalami lamri bokkul ci aalamul xalqi suñu borom bi nga xam ne ne gaa ñi ñu laaj sax ñoom ñu ngi laajoon du ruux bi xam ne mooy esprit maanaam nafsul naataqa ñu ngi laajoon nafsul xayawaaniya نفس الحيوانية مانم آه، لسوف الفيتال فابور بوير بوبو نغا خامني كوم مثلا بون تيتي بون ديلو سي كتاب النفس والتصفيه فان فايزا سويت هو نفخت فيه من روحي في سن بروم بوي بيند ادم اك بوي بيند بوي بيند بيت نيت تصفيه موي كرن بلان مانم تاك جيمبي سن بروم مو بيند جاني ni ñu ci ko sonsu alcorane ci gën ulama yi posé nañ question alquran maxluqun mu'tazili yi nga xam ne sont les rationalistes de la communauté ñoo ne alquran mbindeef la waaye alquran du mbindeef meloo la ci meloo yàlla yi kon nag alquran yàlla la kon bi ñëw ci kaw suuf alquran moo ci gën ulama yi dem nañ ba ne maanaa yi nga xam ne moom la suñu borom dugal ci esprit sayidina jibril mu indi ko mooy waxi suñu borom ji nga xam ne ci sifaatul qadima ya la nga xam ne حدثاني برب تقوم لولا موي وحي الله دج واي وحي عرب جي دفنا تكتل وحي جوجة برنوني تيري جي بات ييني جلي في دا أتخلي مدكو جلي في كيف صلى الله عليه وسلم أكو جنة تب واي معنى يوي تكتل اللي خمي موي وحي جنة خمي موي تخو سي جلي تن برم عز وجل تبارك وتعالى بكدجة مو جنة تدمت لح موي نعو سن برم نينا نسيب الأهل السنة بقي نبيا ديت بسي باتي عربي baati arab ci bopam ak xaraf yi yépp muy wax di ci alquran ci melaw yàlla la ndax boo seetee ne wax arab yi dafa sosu sosu bi ñu sosu du dara ci ndax wa suñu borom ci bopam amul démb ak tey ak ëllëg yépp a yemandoo ci moom amul maadi ak xaadir ak mustaqbal maanaam amul passé ak présent ak futur kon ñëpp a yemandoo ci moom pour muy wax maanaa yi ñëw ci alquran te jaam ñam koy waxanteel ñëwaguñu du dara lu mën a nekk la li ci gën a gàtt daal du ne alquran wax ci borom la alxuraan a gën a tedd ci lépp lu ñuy kaw suuf lépp lu ñu bind yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ci gën a tedd kaaba gi genn la ci kaw suuf lu am ormalité li ci lislaam bu jëmm ne ci taxsis bu ko suñu borom defal ci al fadlul xusuus yi boobu ma doon waxtaane ci ngëneel yi nga xam ne borom faggu ko bu ne خبأت ربي والرسول والكتاب مستحنيا عن الحساب بالصواب انتو بانينا اللب بني حساب بني فينت دينتنا يا الله من سمجة والرسول دينتنا يا نبي صلى الله عليه وسلم من سمجة والكتاب دينتنا على القرآن من سمجة بكرة يبني بني تاسي قسمي ميلا تكتسما بلاسي مستحنيا عن الحساب كم دم حساب أبدغلو دغلو لله ورسولي مستحنيا عن الحساب الوحش نانا كون مدعو لين ولي الحساب دفن محمد الجنة عن الحساب غدا وجنة في جنان الواسع الله دنيا لبنى ما في جف وخلنا نتاق جف أهل بدر دنيا دي تد دنيا للبن صعبة صعبة يتدي يأندنا جنة صلى الله عليه وسلم نيما دون وخ ما تلتوني في جنة نفس لن يتاسك جف وليو كمال موتك غاني تدنيا نيه la gënoon ca la ñu def ci xare bu ñu ànd ak yonente bi salaa sallam di badar teg ca bépp xare bu ñu mas a ànd ak rasulullah salaa sallam ci kenn coono ya ba bi si sallallahu alayhi wa sallam jógee ñu ànd ak sidna abou bakrin ba ba mu si jógee sidna omar ba nañuy jeex te ahmadou bamba nee na bi may dund xasida bi ñu naan faana ilahi sallallahu alayhi wa sallam eh, sunu borom tabaraka wa taala rabbul izzati bind na ne xasida ji taxaw na taxawaayu bépp jihaar bu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jihaar ak bu bépp beneen jëmm gannaawam bu mu jihaar ngir jëmm yàlla moom xasida googu bu boolee loolu booleet ne suñu borom may na ko alquran man la tamit qur'aana tam lii tam yadum la wax bu dee suñu borom na ma ba ma gënal ko ñëpp mu def rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu topp ma ba ma gënal ko ñëpp mu def yonent yëpp ñu topp ma ba ma gënal leen ñëpp mu def malaayika yëpp ñu topp ma ba ma gënal leen ñëpp mu ne suñu borom digal na sallallahu taala alayhi wa sallam ci sama dund maanaam sama dund mbégum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa umri ila aljinani aidu mu ne kon koo xam ne kii li gënoon a màgg ci jëf mooy jëfi saaba yi mooy ànd ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di jihaar te genn xasida taxaw na taxawaayu jihaar yi nga xam ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jihaar na ko ak ñu jihaar gannaawam yépp te genn xasida taxaw na taxawaayam nga ne suñu borom defal na ma loo xam ne jox na ma mbóot moo xam ne bépp jaam la um bu dul suñu borom rek wa liqaada sirran xaaba an xayrihi almuhin ku dul suñu borom tabaraka wa taala umtale la mu ne suñu borom ci kaw bëgg gum ma bëgg ñu ko waxe ca jaawartu xubban wala ilaha illa allahu أخفى لي السر المسون الله حبا ولا إله إلا الله نانا مم وصانني في القبل سن برم دفو نيو الشق بين بابا جيتنا لو كان دي نيو ndax buñ seetee jaam bu nekk imam malik radiallahu anhu nee na lépp jaam loo tedd tedd la nga wax lépp buñ ko fi tegee dañu seet lañ ca mat a jàpp ñu jàpp ko la ca def ñu teg ko fee benn muy njuumte walla muy loo xam ne ba nga koy wax fa nga ko teg déwén bi imam malik waxee loolu jëmm ne يقول من خالفني غلاظ لموضع لأهله الدلاظ القلب من يسي اليوم قد سلم من كل ريب وبالرحمن قد علما لا زلت أبغي رضا من قدم الفضلاء منه الفضائل والتقريب والكرما قد زال ريب فؤادي ومحى درني كبائري قد محاها من محى لمما نومي عبادة رب لا شريك له قلبي دبر آية توري في الحكمة يا عمرو بامب بام سلي بفر دايف سليم sun borom ñongal ko ci lepp lu dul ngeureumam dafa ne sun borom ñongal na ma ci lepp lu dul ngeureumam waxul ne ñongal na ma ci lepp lu dul nona waxul ne ñongal na ma ci setan waxul dafa ko ñongal ci lepp lu dul ngeureumam kon lepp tam lu mu def ngeuremal yalla la bañon nako ba farlu won na farlu go xamne buñ ko def rek ci zahir ben jam agu ci modi gis yi ñu jëf ci aada muy lekk ak naan ak nelaw ak jóg ak doxi soxla yépp ay jaamu yàlla la woon ci moom lépp lu mu def bu koy wàññi benn mu ne liimaan lislaam lextaan wala mu wàññee ko juróomi ponk lislaam yi wala mu wañ fa ñi nga xam ne ñoo yor aras ya ahmadu bamba di jëriñ jaami yàlla yi ba jëriñ jaam ñi tedd ñooñu àndoon ak rasul sallallahu alayhi wasallam ba mu nekk leen benn magasin bi mu nekkee si géej gi bu ñu ko masoon a dugal dugal ci ay soldat yoo xam ne seen ci fa def leen jëñ kal ci ñi di ko soxare di ko xiise di ko xër li ñuy sox di ko tuur tàngal ak lépp li ñuy def